yaa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 julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci seyxuna Ahmadul Xadim noo ngi nuyoo ak ziar di tàmbalee ci nuyoo boobu ak ziar bi jëwriñu yoon di as cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ñaan sunu boroom mu gën koo yàggal ci jamono te gën a dolli ak wéram. kàttanal ko ba naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam yépp suñu boroom bàyyi ko fi ba mu àggale ko te ñu ànd moom te am ci ngërëmul sëriñ bi noonu lañuy nuyoo mbooleem njabootug lislaam gépp di nuyu nag mbooleem ëtti sëriñ Tuubaa yépp di nuyu mbooleem taalibe yi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew di amaat mbégte di teewaat ci barab bu tedd bii nga xam ne moo di néegu yàlla bu mag bi nekk ci dëkk bii nga xam ne mooy dëkkub Cheikhuna Ahmadul Xadim di Tuuba ñu ne ci biir jumaa ji nga xam ne lim doon liggéeyal yàlla lépp ba mu ca noppee fii la nekk ci penku jumaa ji di fi noppalu ñaanoon it yàlla ci dëkkam bii mu may ko fi jullikaay boo xam ne bu dee tàng ak bu dee sedd bu dee taw ak bu tawut bu dee naaj ak bu naaju lépp mbooloo dana fi nekk di taxawal waxtu yi nga xamante ne bii mooy waxtu yu juróom yi ñu àndandoo nag ak daayira bi nga xam ne mooy daayira muxadamatul xidma nga xam ne ci ndigalul Cheikh ak la sosoo woon ngir di saytu ak wattu lépp loo xam ne yellut ci barab bi ñu di ko fi tere lépp loo xam ne jaadu na ci barab bi ñu di ko fi def kuréel boobu nag ka ko jiite di sëriñ Afiya Buso ñu ñaan sun boroom mu bàyyi ko ci kanam njaboot gi lu yàgg lool mu yàgg leen a jiite yàgg a topp ci ginnaawam yàgg a liggéeyal sëriñ bi te yàgg cee am ndam xam ngeen ne baaxoo nañ saa yu weeru baraxlu demee bay cate ñu delsiwaat fii ànd ak yéen ngir fàttaliwaat jullit yi ak joxewaat eh, li nga xam ne mooy ay leeral ci waajtaayu weer wu tedd wi nga xam ne sëriñ Serigne Touba Xaadim Rasul bokkoon na ci weer yi ko gënal ci saa yu masaa ñëw taraanga ju toll ne ju kenn munta xalaat mu di ko def ci weer wi te muy weeru koor bind ay xasida yu mag yoo xam ne da ko daan teeroo weer wi daan xotti ay yére yoo xam ne weer wee tax di jënd ay bagaas yu mucc ayib yoo xam ne weer wi rekk a tax di toggulu ay ñam yu mucc ayib di ko seddale ci weer wi ak ay ndox ak yam war a àndal yëpp loolu nag la daayira muxaddamatul xidma royee ci sëriñ bi di ko ko defal fii ci ëttam bii nga xam ne day mel na moom moo koy def di ko jaarale ci seeni loxo waaye muy bàyyi ko ci moom moo tax tey jii ñu toog fas yéene waat àndaat ak bokk yi sunu wetu càmmooñ sëriñ Abdou Lahad Boussa Makhtar nekk ci ci sama wetu ndijoor sëriñ Abdul Xaadir Boussa nekk ci feggoo ak sëriñ Makhtar Kan sëriñ Jiilu Bousso dend ak moom sëriñ Abdou Lahad Thierno nekk ci wet gi ci des ñu fas yéene ñëw rek ci ay tomb yi nga xam ne mooy lépp loo xam ne waajtaay yiñ doon def daaw moo xam muy lu ñuy dogalee nit ñi ci aw ñam muy lu ñuy naan wala lay ànd ak la ñuy naan ak bagage yañ ko doon def ak laytaay ya ak conférence yi nga xam ne mooy am ci bis bi ak lay tax conférence ya mën a am yooyu yëpp sëriñ Abdou bu sa maxtaar dana ñëw moom mi nga xam ne moo nekk ci commission sociale leeral ñu ko ak somme bi nga xam ne defe woon nañ ko daaw lépp mu jaar yoon ak li nga xam ne buñ ko amaatee ren dana melaat na daaw wala mu dàq ko loolu sëñ Abdou Lahad bu sa maxtaar dana ci ñëw ak kilifa yi nga xam ne wala bokk yi nga xam ne daanañ ci participer ci ci biir réew mi ak ñàkk ca bitim réew waaye bu noppee sëriñ ab jiili busoo dana ñëw moom mi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu culture te mooy conférence yi nga xam ne moom lañu ñu fas yéenee def ci weer wi muy ñaar fukki conférence ak juróom-ñeent wala fanweeri conférence ñaar fukki conférence ak juróom-ñeent thèmes yéen ci tànn ak ña koy def loolu incha allahu rabbi dana ci ñëw su noppee sëriñ jiili bu su dana ñëw nag ci loolu ñuy def nag luy tax mu mën a jàll ci télévision yi ak rajo yi ak site internet yi loolu lépp moom mi yor communication dana ci ñëw incha allahu rabbi su noppee sëriñ Maxtaar Kan dana ñëw nag moom mi nga xam ne moo yor wàllu organisation ci loolu lépp moo xam fa ñuy conférence la moo xam fi ñuy ndogoo moo xam ya ca aju yëpp moom it dana ñëw tënkal ñu ko incha allahu rabbi kon damay bàyyee kàddu gi sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar mu nuyoo ak mbokk yi su noppee rek mën na cee wéyaale liiral ñu rapport bi nga xamante ni bii moom lañ jëfe woon daaw laajoon nit ñi seeni alal bëgg defal leen ko nag fu ñu xam ba noppi nag bëgg leen a leeral fañ leen ko defaloon ba liñ leen di laajaat ñu man a sawar ci man koo joxe kon sëriñ Abdou Lahad bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. Cheikh Mouhamadul ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziyaara bu baax di ziyaare bokki téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di leen dalal jàmbitam ci barab bu tedd bi nga xam ne mooy jumaa ju mag ji ci Touba jumaay Seexul Xadim ji niñ ko waxee ñu nekk ci waajtaayu weer wu am solo woo xam ne mooy weeru koor di weeru jaamu yàlla di weeru promotion ci lépp lu baax nga xam ne lu baax baax na ci weer wu ne waaye ci weeru koor la gëne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni suñ boroom daf koo soob mu sàkk ay barab sàkk ay waxtu sàkk ay jëmm seppi leen gënal leen ci ca des ba muy lim yooyee weeru koor bokkoon na ci weer yi nga xam ni moo gën ci weer yépp mm-hmm. ni ajjuma nekke sangub bis yépp ni la weeru koor nekke sangub weer yépp kon sun boroom moom la soob mu defe ko noonu mu doonoon weer woo xam ne it Serigne Touba daf ko fonkoon lool su ma saana jug ni nga ko waxee léegi daf koy waajal di ko dalal su demee bay tàggoo muy tàggatoog moom ba tax na gis nañu xasidaam gu siiw googu muy wax naan yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi loolu nag day tax murit warul am sago ci dundal weeru koor ngir ki ñu am muy sunu royteef di sunu yaakaar yi àdduna ak alaxira loolu la ñu joxoñoon ci loolu la yoroon sunuy bay maam ak sunuy wayjur muy dox ba agsi ci nun booba jamono gënoon naa metti jafe-jafe yi gënoon naa bari gënoon naa tar waaye teewul su weeru koor masaan ñëw day neex ba fu waay nekk fu nekk day am yéene dem njaaree mu war a ji fa ci kanamu sew Khadim ngir xeewal yu bari yi nga xam ne sëriñ bi daana ko def ci weeru koor daayira Muxaddamatul ma nag am ci ndigal loo xam ne mi ngi bàyyee ko woon ci Cheikh Salihu Mbacke ci atum 2005 ci dundal weeru koor gi ci ñaari fànn benn bi di fànnu xam-xam def ay waxtaan yoo xam ne day séddalikoo ci niñ ko xamee ci ñetti xaaj sëriñ Abdul Xaadir dana ci ñëw léegi muy yenn yi di ay conférence yu am solo yi ci des nekk ay duruus ay bind yoo xam ne dañ ci jàng jàngale xam-xam yoo xam ne yu amal njëriñ jullit ñi la te jullit ñi bari duñ ko faral di bàyyi xel te lislaam wax ci loo xam ne kenn ku nekk war na koo xam te di ko jëfe yeneen yi ci des nekk ay laaj ak i tontu. loolu baaxoo nañ ko def at mu jot waaye baaxoo nañoo def ay ndog yoo xam ne euh, bu waxtu dog jotee dana fi faral di fekk mbooloo bu bari moo xam ne li gën a néew léeg-léeg dana dem ci ñeenti junni nit loolu nag euh, ni ñu ko xamee at mi ñu génn Euh, lu toll ci ñeenti junniy nit doon nañ fi doge. bis bu set bis bu set. gën jaa néew. jàpp nañ ne sax ren incha allahu dana yokk ndax lim boobu daana bari lool waaye liñ daan estimé daawu ci egg ci at yi ko jiitu. ay ñetti junni ñetti junni ak juróomi téeméer waaye daaw gis nañ ne yokk na ba àgg ci ñeenti junni ak ñeenti junni ak lu topp par bis. liggéey boobu nag. day séddalikoo ci ay commission yoo xam ne ñooy taxawee liggéey bi commission yooyu nag juróom-ñaar lañu yoo xam ne ñooy amee liggéey bi am na lu tudd secrétariat général am na ñu tudd commission organisation am na ñu tudd commission sociale am na commission culturelle am na commission communication am na secretariat administratif am na commission finance secrétaire général ñoom ñooy coordonné liggéey bi ci coordonné mboolem liggéey yi nga xam ne commission yi ñu ngi koy def di ko joyanti di ko nos ba kenn ku nekk xam li ngay liggéey di indi seeni rapport ñu di ko évaluer lu ci mat a dolli ñu dolli ko lu ci mat a joyanti ñu joyanti ko mm-hmm. commission sociale bi nga xam ne tey sëriñ Abdul Ahad bu sama Assa mi ko jiite te yàlla dogal mu am ngànt ma teewalaal ko fi tey ngir jotlil ko ay kàddoom euh, commission sociale boobu moo jëm amee lépp lu jëm ci dimbalante gi nga xam ne moo nekk ci biir daayira bi ak jokkale daayira bi ak yeneen mbooloo yi ak liggéeyam ci koor gi mm-hmm. nii la tëddee lu jiitu koor gi ñoom ñooy dem ci turu daayira bi ci cheikh Mouhamadul Muntaxa sa yeesalaat ndigal li ndax xam ngeen ni ab taalibe bi sëñu te def lenn te amul ndigal te noonu nag ñoo ci raw ndax barab bi ñu nekk laa tafaalu shay'an bi gayri izni fal iznu sartun fi xabooli sha'ni ci biir koor gi itam amal nañu ay ndimbal yu am solo wala danañu amal ay ndimbal yu am solo yu jëm ci waa jumaa ji euh, muy imaam yeeg noddukat yeeg ak mboolem rek ku nekk ci biir jumaa ji te di ci hmm. liggéey rawatina waa daayirat muxaddamatul xidma ak yeneen jumaa yi nga xam ne nag sëriñ bi def koo teg ci loxo yi muxaddamatul xidma mu di ko saytu ak leneen ci ay bokki taaliba yoo xam ne gis nañ ne daayira bi war naa taxaw seen wet dimbali leen moo xam ci lu mën a doon lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram danañ ci jàppalante ak nit ñi ci biir daayira bi ak ci biir jumaa ji yëpp ay xeeti fàtt xeeti fànni yu wuute ci ay wàll faj maanaam ay spécialité yu wuute ci seenu jëflante ak waa kër docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak ay garab yoo xam ne itam danañu koy am di ko jàppale ñi nga xam ni ñoo nekk ci euh, daayira bi xam nga ne am na benn poste de santé wala benn case de santé bu nekk ci biir jumaa ji boo xam ne moom it waa commission sociale boobu ñoo koy saytu loolu tax na euh, dépensé woon nañu daaw lu toll ci huit million cent soixante dix huit mille ci garab ci ci wàllu ndimbalante mm-hmm. ci wàllu garab ci wàllu lépp loo xam ne action sociale la boo xam ne def nañ ko ci biir koor gi seen budget daaw tolloon na ci huit million cent soixante dix huit mille am na it commission culturelle commission culturelle bi seen taxawaay tënk nañ ko léegi muy wàllu xam-xam waxtaan waxtaani diine yi nga xam ne dañ koy def ci koor gi danañu amal lu tollu ci ñaar euh, fanweeri waxtaan su fekkee weer wi dem na ci fanweeri bis bu dee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan juróom-ñeent yëpp dañ ciy amal ay waxtaan. Mm-hmm. ay itam yu am solo. Mm-hmm. Cheikh Abdoul Khadir dana ci ñëw. dana am ay xeet yi waxtaan comme ni ma ko waxee woon léegi yoo xam ne yu wuute doon ci ñett yooyu ma waxoon léegi gën leeral yi dana gën a ñëw ci kanam tuuti ak Cheikh Abdoul danañu defar itam këyit dog yi nga xam ne moom la ñuy doge lu jiitu koor gi. ak yeneen i taxawaay yu am solo yoo xam ne day jëm ci wàllu xam-xam yu bari ci ay formation ci ay e, gën a tënkaat nit ñi ci yar bi jumaa ji laaj ak teggin yi mu laaj ak taxawaay yu am solo yi nga xam ne nit ki war na koy taxawee ci jumaa ji te lépp di dellu ci lislaam njàngale yu am solo yooyu yëpp ñoom dañ koy def mm-hmm. booleeg nag wut ay waxtaankat wut ay modérekat yoo xam ne ñooy taxawu waxtaan wi seen budget bu daaw tolloon na ci un million trois cent cinquante huit mille euh, naka noonu am na commission communication bi nga xam ne Serigne Makhtar kan mi moo ko jiite ak Serigne Abdoul Khadir Bousso ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu communication ci biir daayira bi internet bi ak télévision bii nga xam ne bokk na ci yi jàllale tey jii waxtaan wi di GMT euh, euh, wala MK TV bi nga xam ne mooy télévision jumaa ji Touba ju mag ji ak mboolem télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rawatina télévision yi morit yi yëpp mën nañ cee tudd làmp Fall mën nañ cee tudd Touba TV mën nañ cee tudd yeneen mboolem site internet yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi wala sax ñu nekk ci biir département bi tey yëngu ci biir l'islam di yëngu itam ci yoonu murit mën nañ cee tudd lu mel ne télévision Al Mouridiyyah ak it nag yeneen télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi di ay télévision yoo xam ne itam euh, mën nañoo wax ne télévision yu mag lañu ci réew mi ñoom ñëpp dañuy ñëw ci biir koor gi di jël si liggéey bi buñ ñëwee ñoom it ñoom ñii la ñuy jokkool doy ànd ak ñoom coordonné liggéey bi ba mu am solo ni mu war amee solo lépp mbooleem rajo yi nekk ci gox bi itam rajo yi dañuy jàllale waxtaan yi ñii dañ koy def direct ñii dañ koy différé di ko teg waaye ñoom ñëpp itam dañu dañu ci liggéey liggéey bu am solo ak waa commission communication xam naa ci kanam. Hmm. Serigne Dil dana ñëw ci seen rapport ñoom ni ñuy doxalante ak ñoom. defar di defar ay documentaire ci biir koor gi. Hmm. di mboolem lu ñi fi ñëw itam di fi andi ay barkeelu ñu di ko génne ñi nga xam ne itam ñooy def waxtaan yi ñu di ko enregistré ñi koy soxla di jóge ci biir dëkk bi wala di jóge ci yeneen région yi wala feneen fu man di doon. ñu man bu ñu ñëwee ñu di leen ko joxaat ngir ñu mën ko jàllale loolu day tegtal ne ñoom it xataluñ seen liggéey waaye yaatal nañ ko trop. Mm-hmm. ñooñu seen budget bu daaw tolloon na ci un million deux cent dix-sept mille huit cent. Mm-hmm. am na itam benn secrétariat administratif boo xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu administration. Mm-hmm. bind mi ñooñu ñooy tontu lettres yi. ñooy defaral euh, commission bu nekk carnet boo xam ne ci ngay sukkandiku. ngir mën a doxalal sa programme bon yi ngay bind not yi ngay noté rapport yi ngay def questionnaire boo xamante ne bii li ngay war a soxla lépp da koy def da nga ko ciy mën a def ngir mu mën a agsi ci secrétariat général bi ci ak yomb liggéey nañu lu am solo ci dañuy liggéey lu am solo ci koor gi ñoom itam dañuy teel xëy lool te fa la ñuy nekk ba mu guddi di bind rek ak a tappe ak imprimé ñooñu seen budget taxut woon mu bari lool ndax ay jumtuwaay lool waaye nag seen liggéey moom kawe na lool te am na solo lool. Hmm. seen budget tolloon na ci deux cent vingt et un mille six hmm. am na commission organisation te mooy mbooloo mi nga xam ne nag ñoom ñoo yare liggéey bi. Hmm. te Serigne Makhtar Kane mi teewal leen fi. ñoom dafa mel ni li ëpp ci liggéey bi ñoom ñoo ko amee. Euh, commission boobu ñoo daan toppatoo lu jëm ci wàllu dalal gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ci waxtaan yi lu jiitu muy muy conférence bi am na ci kuréel boo xam ne loolu lay liggéeyee am na ci kuréel boo xam ne yeneen yoo xam ne itam ñooy toppatoo wàllu ndogo yi wàllu ndogo yi itam suñ ko waxee dafa yaatu ndax mu ngi tàmbalee ci suba gi am na ñuy xëy ci fajar tàmbalee nekk ci raxas bi am ñoo xam ne bu asamaan setee ñooy ñëw tàmbalee nekk ci waajal ndogo yi hmm. am ñoo xam ne itam ñooy lal fi ñu war a doge mm. am ñoo xam ne ñooy gàttandu ñuy dog si am ñoo xam ne ñooy teg yi ñu war a doge yëpp mm. am ñoo xam ne buñ noppee ñoo koy lalli am ñoo xam ne buñ noppee itam ñoom ñooy buub parab bi ba mu set wecc mm. tax na mbooloo mu bari lay liggéeyloo daaw ñi ngi doon liggéeyloo lu toll ci juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom bis bu set bis bu set ñoo xam ne ay góor lañu ak ay jigéen euh, loolu nag lu yomb xam la ndax boo xoolee nii ma lay tegalee leen liggéey bi rek ñu war a xëy si raxas ay nangami junni objet diggante palaat kopp kuddu pañey mburu ay cafetière mm-hmm. ay thermos mm-hmm. ay baraada ay nangam yoo xam ne lu ci nekk ay junni la mm-hmm. te boo ak AGT yi ñoo loolu mbooloo mu bari ñoo ko mën a taxawee loolu nag ay jigéen lañu am Pastef seen li nangoo sonn ci liggéey bi lool am ci yitte lool am ci itam ak cawarte lool ñu ngi leen di santu di leen gërëm te di leen soññiyaat bu baax a baax waaye amit ay ndaw yu sawar yoo xam ne ñoomit it xëy nekk ci waañ wi suba teel huit ba dog di jot ñu ngi ci ay taal di defar ay kafe di defar ay meew di defar ay ataaya am ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi ca jus ya e, yu demee ne ay bisaab ay junjeer ay ay yeneen yi nga xam ne yëpp lu ñuy dogee lay doon am ñoo xam ne ñu ngi ci bagage ñoom ñooy yaale di dem ak dikk di leen andil am ñoo xam ne ñooy lal ak waajal fi nga xam ne fi la ñuy doge am ñoo xam ne itam ñooy teg yi jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Mm-hmm. di ko sàmm am ñuy dal gan ñi am ñoo xam ne buñ noppee ñoo koy teggi am ñoo xam ne buñ noppee ñooy buub ñooy buub fi ko doon defee raxas ko ba mu set wecc kon mbooloo mu baree bare lay doon. ni ma ko waxee woon daaw ñi ngi tàmbali ñi daan tàmbali liggéey bi ci 6 heures du matin mi ngi daan jeex ci 23 heures daanañu nafila ba noppi lépp door a jeex kon ñooñu liggéey bu am solo la ñuy liggéey ñooñu nag ñoo ci ëppale budget tax seen budget tolloon na ci 22 euh, millions 312 mille francs CFA. 22 millions 312 mille. waaw ci weeru koor bi waaw yoo xam ne moom dañoo xaalis la boo xam ne dafa tàbbi seen loxo. ñu financé ko ci ay yëf bokkul nag ak euh, jumtukaay yi nga xam ne daf doon ñëw ñu di ko jëfandikoo commission yi finance itam am na ci mooy commission bi nga xam ne li fiy ñëw ci xaalis ñoom ñoo koy dajale di ko dépensé waat itam ci commission yi commission bu soxla bind moo am ñu validé ko mu dem ci ñoom ñu financé ko loolu mooy commission yi nga xam ne ñoo amee wàllu liggéey bi mel na ne it euh, ci loonu li fi ñëw day séddale ko ci ñaari pàcc wala ñett lenn li ay bagages lay doon lu demee ni suukar lu demee ne café lu demee ne tàndarma lu demee ne ak yeneen yu ni deme yoo xam ne dañ koy jëfandikoo. lu doon matériel xaalis loolu lay doon. waaw loolu lay du doon xaalis matériel lay doon. Mm-hmm. loolu li fi ñëw daaw biñ ko estimé toll na ci douze million cent trente sept mille huit cent trente cinq. Mm-hmm. douze millions euh, cent trente sept mille huit cent trente cinq. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy defar mburu di fi andi bokkul ak mburu mi nga xam ne moom la ñuy jënd. am ñoo xam ne dañuy jënd mburu di fi andi. ñaar ñooñ ñëpp dafa am euh, ñooñu indi nañ fi daaw lu toll ci deux mille cinq cent deux deux cinq mille cent trente et un euh, baguettes mburu ñaar fukki junni hmm. ci ay mburu ak téeméer ak fanweer ak benn yoo xam ne ay nit ñu baax lu demee ni daaira Miftaaxul Xuyuur ñu am solo lañ ci te am taxawaay bu rafet ci koor gi daaw andi nañ fi lu toll ci quatorze mille six cent soixante sept. bokkut ak li ngeen di jënd yéen. déet bokkul ak li ñuy jënd waaye seen lim boobu mi ngi dugg ci biir lim bi ci vingt cinq mille yi. Euh, ay kilifa yu am yu bari itam ci dëkk bi yoo xam ne dañuy barkeelu ci wàllu mborom bi ràññee nañ ci taxawaay yu am solo yoo xam ne ay kilifa lañ yu jege fii lool euh, euh, am nañ ci solo lool ci taxawaay bu mel noonu mën nañ cee cité ku mel ne Soxna Gàdd bu Buso bañ ko tàmbalee ba ren ba daaw at mu jot mburoom day ñëw mën nañ jotudu ko du mel ne Serigne Cheikh Abi Mbacke ak alaaji euh, sëriñ Gueye ak ñeneen ñu mel ne ñoom hmm. ñoo xam ne ay at yu baree ngi nii yu tegaloo at mu jot dañuy jëf ci liggéey boobu jëf ju am solo hmm. fekk si nag daayira Miftaahul Xuyur bi nga xam ne moo lëkkale boulangerie yi indi hmm. nañ fi daaw ni ma ko waxee léegi quatorze mille six cent soixante-sept baguettes maanaam fukki junni ak ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay mburu waa ilhamu latiful xabir di sunu bokki taaliba yi nga xam ne ñoo dëkkee Tuubaa Ngoy te Cheikh Mouhamadul Amin Baara boole woon leen ak daayira Muxaddamatul Xidma Pastef boobee ñu di ko dund di ko doxal ba léegi nga xam ne bis bu yàlla sàkk ajjuma ju ne dañuy xëyee Tuubaa Ngoy ñi xëyee Ndakaaru ñi xëyee fu ci réew mi ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba wàcc ñu door a delluwaat waaye Pastef bu toll na nit la ñuy def ci lépp lu xew muy màggal muy koor muy gàmmu lépp dañ koy ànd ak ñoon minel bidaaya ila nihaaya mm-hmm. ñoom it participer nañ ci lu toll ci junniy mburu ak ñeneen ak bare baree bare ci ay bokki taalibe yoo xam ne bëgg lu baax te nangu cee sonn moo tax ñu di ko def waaye ñu nit jënd nañ lu toll ci vingt et un mille cent ci ay baguettes su ko defee day mel ni li jëfandikoo ci mburu daw dem na ci quarante six mille deux cent trente et un ñeent fukki junniy mburu ak juróom benn junni mburu ak ñaari téeméer ak fanweer ak benn kon mel na ne loolu quarante six mille deux cent trente et mu nekk lim bu am solo ci loo xam ne jëfandikoo nañ ko ci mburu te pourtant li mburu mi di bari bari bari bari am na ay bés yoo xam ne mburu mi du doy te amul benn bés boo xam ne mburu mi yées na junniy mburu ak juróomi téeméer te léeg-léeg mu am foo xam ne du fa mën a àgg loolu day tegtale mu nekk des na ko dagg ñaari dagg des na ko dagg ñaari loolu mooy tegtale bari waaye bu nit ñi di bari am na ñoo xam ne léeg-léeg bu dul ko nag xéewal yi nga xam ne dañ koy defar ñëw te mooy ñaareelu partie bi ñaareelu pàcc bi ma enseigné foofu duggaale ci mooy am na ñoo xam ne dañuy defar ay xéewal di ko andi lu mel ne ay laax léeg-léeg mu ñëw fi ay beñe ay ay nangam yoo xam ne nii nit ñi dañ koy mën a jëfandikoo ci waxtu dog yooyu da lay dimbale bu baax ci bu mburu manqué day mën a remplacer mburu ndax am na ay eh, xeeti ndaw ko ndaa yoo xam ne moom bu ñu amul mburu itam nga jox leen bonbon bu am solo wala beñe bu neex day mm-hmm. wecc mburu ci ñoom eh, kon loolu itam bari na ay kilifa yoo xam ne doon nañ ko def di ko fi andi am na ñoo xam ne sax dañuy togg ay ñam yu am solo di ko fi andi bis bu taal la sàkk ci koor gi danañ profité foofu gërëmaale soxna baali Bali Muntaqa moom itam am na ci taxawaay bu am solo defar waajaloon na ay xewal yu am solo yu yaatu indi ko fi ni ko noonu sëriñ Cheikh Aw la moom Cheikh Mouhamadul Fadil moom itam am na taxawaay bu mel noonu ne ko noonu sëriñ Moustapha Xasida moom Cheikh Abdoulahi borom dër ak yeneen i kilifa yoo xam ne dañuy am taxawaay yu mel noonu di waajal ay xewal yu am solo di ko fi indi waaye itam ak yeneen bokki taaliba yoo xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñu di leen ràññee ci taxawaay yu mel noonu kon ñooñu dana mat a euh, Euh, di leeral bu baax a baax dépense yi itam yi jëm ci jumaa ji wax naa léegi commission bu nekk li nga xam ne moom la jëfandikoo ci xaalis hmm. kon damay ñëw ci li ñëw ci xaalis hmm. lépp daaw hmm. tolloon na ci quarante sept million six cent soixante et un mille neuf cent cinq ci weeru koor gi ci weeru koor gi li ñëwoon ci bagage tolloon ci douze millions cent trente sept mille huit cent trente cinq euh, li ñu finance woon ci xaalis daaw xaalis espèce nekkoon na euh, quarante six millions li ñu financé financé woon lépp nekkoon na quarante six millions sept cent cinquante sept cent cinq mille sept cinq. lu ngeen amoon ci xaalis espèce. li ñu amoon ci xaalis espèce nekkoon na quarante sept millions six cent soixante et un mille neuf cent. cinq quarante six millions et quelques. kon daal ay euh, euh, millions bu manqué ngeen di. déedéet boo dañ ciy dugalaale bagage bi dañ ciy dugalaale bagage bi. Mm-hmm. kon desoon na fi euh, lu toll ci treize million mm-hmm. treize million yooyee mën nañu wax ne ci la ñu li ëpp ci dépense yu màggal gi. Mm-hmm. ci la génnewaat dépense gàmmu gi itam lu ci bari ci la génnewaat. am na nag ay mottali ndax mënu koo matale. dëgg la waaye doon am na ci apport bu am solo. ci liggéey bu bi nga xam ne liggéey nañ ko ci. at mi mu mel ne kon bu ñu seetloo. liggéey bii dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne. am na jàmbaar yu am solo yoo xam ne. taxaw nañ ci taxawaay bu am solo. jàmbaar yooyu des ci mën a ñàkk a tudd yenn ci ay coordinateurs yoo xam ne ñoo coordonné liggéey bi. ñi ñu ànd ni ñi ñu àndal liggéey bi ba ko tàmbalee ba léegi. Mm-hmm. foofu nag des fi mën a ñàkk fàttaliku. Ah, suñu kilifa gu baax ka mm-hmm. nga xam ne ba liggéey bi di tàmbali. Mm-hmm. moom moo ko tàmbali woon. daan ko obisi daan ko tëj ci di ci njëkk jiital alalam. muy cheikh Mouhamadul Moustapha moom ma Massamba ñu ñaan suñu borom dool li ko yërmande li ko njëggal. dolli ko ay ngërëm ca fee mu tëdd te teg loxo ci njabootam. jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëñ Abdou Lahad yaakaar naa ne lii lii lii lii lii nga indi rek leer na ci boppum ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci moo xam télévision MKTV la muy mm, télévision yi Jumaay Touba. moo xam nga di ko seetaan ci CMT muy situ yi Touba moo xam nga di ko topp ci yeneen site internet yi ci des wala nga di ko seet ci seen télévision Lamfal TV wala nga di ko déglu ci yeneen rajo yi eh, yaakaar naa ne ci weeru koor wi eh, bu ñu dajalee ci bagage valeuru douze millions et quelque buñ ne lee danañ dogal ñeenti junni nit dootoo ko sikki sàkk ndax yaakaar naa ne foo xam ne da nga naan li ma jënd ci mburu toll na ci ñaar fukki junniy mburu ñeen fukki junniy mburu ak juróom-benn junniy mburu yu tegal loolu kon mbooloo koy jëfandikoo te yaakaar naa ne mburu mi tuddun caaf la tuddun beña ba nga xamante ni bi yooyu yeneen lay ànd ci biir eh, ndogu yi kon day mel na rek ñoom daal ba tey ñu ngi dàkk rek na ko sëñ bi doon defee ci njaareem rek nga xam ne mag ñëpp xam ne da daan dukki dukki ba fajar rek lu lu lu lu jaadu wala mu jekk ci eh, ku woor mu yët ko ko loolu la waa mu xadamatul xidma eh, di di doxe loolu lépp nag mbooloo mi war nañoo xam ne xidma amul kees war nañoo xam ne xidma amul kees amutit foo xam ne fa lay jële ji xaalis ndax ñoom du caagéenu ne xalif général des mourides mooy dajale bit jox leen leen def leen fii du caagi noonu waa xidma ñoo déedéet lu ñuy def la li wacci laahi waqfu lillaahi la daal maanaam ku yónnee sab dërëm ngir yàlla ñu defal la ko ci ñoom it lu ñu am def ko ci ngir yàlla ngir mën a dogal jullit yi ak taalibe yi sëñ yi nga xamante ni ñu ngi woor ci e, weer wi kon yaakaar naa ne ña defoon rëccooguñ ko waaye ñi defagut it war nañoo fexe ba def ci seeni loxo te loolu incha allahu rabbi danañ joxe mm, bunt yi nga xam ne ku ci bëgg a def saw ñaq da ko ci mën a jaarale te damay faral di wax toujours ne jëf ji yàlla gën a nangu mooy nga defal ko koo xamut yow mi nga xam ne da nga yónnee sa alal ak jox ko waa jumaa ji ne leen defal leen ma ko ci ndogu yi kay ndogu si ndogu la doo ko xam ba naan la jëf ndax jërëjëf sax mën nga cee gis sa bopp loolu mooy jëf rek ngir jëmmi yàlla kon sëñ eh, sëñ Abdou yaakaar naa ne yéen yéenay waajal nag conférence yi te waajal ngi da ngeen waajal lu toll ci ñaar fukki conférence ak juróom ñu bëggoon a xam ñaar fukk conférence ak juróom-ñeent yooyu ñan ñoo koy def yan tam lay doon ndax conférence rek lay doon wala am na ay labiré yu ne ci biir wala am na ay laaj ak ay tontu ak nu mu demee daal bëggoon nañ mu gën a leer ci boppi jullit yi ak waxtu yu muy doon ba nga xamante ne bii nit ñi bëgg a woor ci Touba danañ xam nan lañ woore ki nga xam ne dégg na ko it ya ko ca intéressé ak dat ya dana mën a xam fan la koy kare suñ jili ok bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Fall bi ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu sunu kilifa yi ñu toogal ci jotaay bi waaye di nuyu it ñi nga xam ne ñoo ngi teewlu ci buumi jokkuwaay kaay yu yëpp mu jiitu ci MK yi te mooy euh, canal bi nga xam ne mm. moo jokkale jumaa ji ak murit ji wala ak jullit ñëpp mm. la sax ak mbindee fi suñu borom yëpp mm. di rafetlu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne suñu nijaay sunu waajur Sëñ Abdou Lahad jiital na ko ci euh, jotaay bi muy ay kàddu yu matale sëkk yoo xam ne jàpp naa ne bu ñu ci yemoon rek dana mat dana doy ci ñu xam liggéeyu daayira bi ci biir commission yi nga xam ne ñoom ñoo ko séq euh, comme ni ko waxee Sëriñ Fàllu euh, liggéeyu koor gi dafay mel ne bu ñu ko doon xaaj ci xaaj boo xam ne rek xëy na mooy nekk xaaju principal hmm. xaaj bu mag mën nañ koo xaaj ci ñaari wàll hmm. te ñaari wàll yi nga xam ne moom la ñuy dundale koor hmm. benn bi mooy xirat taat comme ni ko euh, sëriñ bi waxe ci xasid ak yaa xayra dayfin hmm. berne berne goo xam ne day jëm ci wàllu jàmm yàlla hmm. te loolu du ci génn waxtaan yi nga xam ne moom lañuy def ci koor gi naafile yeeg jëf yu baax yépp waaye bi ci tegee mooy nag euh, feeñal ci ak tab ak euh, teraanga te loolu moo jëm ci xéewal yi nga xam ne moom lañ fi doon wax léegi mburu meek ya ci aju mm-hmm. euh, daayira bi comme niñ ko xamee at mu jot dana waajal ay waxtaan yoo xam ne dana mat fanweeri waxtaan fanweer yi nag saa yu ne ñaar fukki ak juróom-ñeent dana jàll benn bi bu weer wi kaamilee mu mat mu jàll bu fekkente ne weer wi dafa matut dafa kaamilut ñu yemale ko ca xool nag beneen occasion wala beneen posé boo xam ne njëkk nañ koo am ñu jaarale ko ci te lu ci ëpp ci weeru màggal gi lay doon kon waxtaaneelu waxtaanu fanweer wi bi nga xam ne mooy fanweeral waxtaan yi ñaare bu jàllut ci koor gi danañ ko jàllale ci màggal gi ci waxtaan yi nga xam ne moom la euh, commission culturelle bi di taxawee waxtaan yi nag dafa am nu ñu koy waajale am nañu koy joxe am nañu koy defee bu ñu njëkkee ci wàllu njëkk gi mooy ni ñu koy waajale mm-hmm. ni ñu koy waajale mooy nekkul ne ay tomb la yoo xam ne waa daayira bi rek wala waa commision bi rek ñoom ñoo koy xalaat jox ko joxe ko nam leen neexee déedéet avant ñu koy tànn dañu ciy waxtaan maanaam jëmmi commission bi ci jëmam da ci waxtaan mm-hmm. bu ci waxtaanee da koy génne di am ci wut ci ak diisoo mm-hmm. yi ci ciy diisool nag am na ci ñoo xam ne ci biir daayira bi lañ bokk am na ci ñoo xam ne sax bokkuñ ci daayira bi waaye ay niti xam-xam lañ ñoo xam ne dañuy yëngu ci xam-xam xam nañ ci wàllu googu danañ leen ci consulter laaj leen seen xalaat ci ay thème ci ay tomb ñu proposé ko waaye laaj leen ay nit ñoo xam ne jàpp nañ ne mën nañoo taxawee tomb yooyu léegi proposition yooyu nga xam ne nag mooy jóge ci jëmmi commission culturelle bi ak biir membre yi daayira bi ak yeneen ñeneen ñi nga xam ne ñooy yëngu ci xam-xam proposition yooyu yëpp lañu ñu boole bu ñu ko boolee daal di woote am ndaje mu mag moo xam ne day dajale ñetti nit ñu ñoo ñu ma wax mm-hmm. muy ñu bokk ci ñenn ci ñu bokk ci commission bi ñenn ci ñu bokk ci bureau daayira bi ak ñenn ci ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy yëngu xam dañuy yëngu ci xam-xam ci biir dëkk bi mm-hmm. am na ci ñoo xam ci rawdu rayaahin lañ bokk mën nga bañ a bokk sax ci rawdu waaye rek nañ nekk koo xam ne mm-hmm. dañ laa xam ci wàllu xam-xam bu ñu noppee foofa la segge proposition yi yëpp xool liñ jot a am ci ay thèmes xool nuñ koy seddalee xool it nuñ koy joxee hmm. léegi thèmes yi ni ñu koy seggee mooy dañ ci bàyyi xel ñetti fànn hmm. fànn gu njëkk gi moom la ñu tuddee ay duruus te mooy ay bind rekk hmm. bind yi jubluwaay bi nekkul lu may xool yenn bind yi nga xam ne yitteel na nit ñi dafay baamtu ci dund gi lu baree bari te it mu dem ba ñu baree bari am ci ak ak ak ak ak ak ak ak ak géej daal laa ko mën a wax duma ko tuddee sax ak réer mm. waaye ak géej mm. ba xëy nañu ñu cee fàtte lu bare bari ñu xool nu ñu leen koy fàttalee fàttali gi it boobaa dañ ci sàkk bu baax a baax di ci xaar mu nekk fàttali gu woyof mm. goo xam ne du sut seeni niveau waaye tamit du ko yées loolu lañu tuddee ay duruus moo tax lu ci baree bari ci wàllu fiq lay jëm ci ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy pratiquer mën naa jëm ci julli mën naa jëm ci woor mën naa jëm ci jaay jënd naa jëm ci miraas mën naa jëm ci yeneen ak yeneen waaye ay bind lay doon yoo xam ne daal day jege nit ñi. dëgg la loolu mooy mooy euh, fànn gu njëkk gi. Mhm. ñaareelu fànn bi ay mawduwaat lay doon mawduwaat ji mooy ay thème thème yi nag dañ ciy xool li nga xam ne jamono indi na ko dañu war cee am gis-gisu lislaam ak nak lañ ci war a taxawee comme ay jullit waaye comme ay murit mhm. loolu la ñuy tuddee ay mawduwaat mhm. yooyu tamit dafa bokk ci euh, euh, ni ñuy xoole waxtaan yi bi ci mujj mooy ay tontu laaj. muy li ñu tuddee ay fatawa bu njëkk nag koor yi jàll euh, duruus yi muy bind yooyu daana mat fukk ak ñeenti duruus fukk ak ñeenti dars mawduwaa yi daana mat fukk ak ñaar fatawa yi ca bu njëkk léeg daana mat juróom-ñett waaye li tàmbalee daaw ci lañ ko commencé wàññi di ko def ñeent mm-hmm. te wàññi gi it ñaari sabab da ko waral benn bi mooy gis nañ ne am na ay laaj yoo xam ne daf daan baamtu lu baree bari baneen bi mooy gis nañ ne yu baree bari ci ñuy laaj mën nañ koo soppi def ko forme bind kon daal mhm. bunt yi nga xam ne ëpp nañ luñ luñ ciy laaj ñu far ko def bind mhm. xool boroom xam-xam boo xam ne euh, euh, xam-xamam màcc na ci wàllu googu bu ko defee mu ñëw gën cee yaatal mhm. bu dee ren nag euh, ak soppi ko am xaw na ci am tuuti mooy jëmmi bind yi ren dañ koo tolloole ci juróom-ñetti bind mawduwaat yi nekk mooy thème yi nekk fukk ak ñaar boo defee nag tontu laaj yi nekk ñeent li tax mu ku nag dafa rek aju ci proposition yi ñëw ndax ñun toujours suñu liggéey dañ koy sof ci proposition yi ñu am mooy comme li ma waxoon loolu day dëggal li ma waxoon léegi rek ne nekkul loo xam ne dañ koy jël min tilqaa yi euh, nga xam ne dañ dafay jóge ci ñun rek wala ci suñu bëgg-bëgg rek wala ci suñu gis-gis waaye loo xam ne lu ñuy daje lay doon lu ñuy waxtaane lay doon loo xam ne ak diisoo da koy jiitu noonu la mbir mi di tëdde bu ñu ko tànnee ba noppi ni ñu koy joxee moom it dafay lalu ci ay proposition danañ xool dafay mel ne danañ xool ñetti mbir ci ki nga xam ne moom lañu bëgg mu waxtaane tomb bi mbir mu njëkk bi mooy xam-xam xam-xam bi ndax tomb bii ñu ko jox lu mu lu mu xam la mm-hmm. lu mu jekku la mm-hmm. ñaareel bi mooy ndax lu mu mën a waxtaane la ndax nit léeg-léeg mu xam dara ba nag du ko mën a waxtaane dëgg la lay tax du ko mën a waxtaane nag bari na mm-hmm. ñetteel bi mooy jëmmi ki nga xam ne moo moo war a waxtaan ak lii ñu ko jox ndax buñ ko ko joxee yellante ne ak war mooy jumaa ji dëgg ñett yooyu la xool waaye nag ñu baree bari ci li ñuy jàpp ne dañ ciy xool ay âge ndax mag la wala gone yooyu yëpp xëy na euh, ay njort lay doon rek waaye amu ci. Mhm. ngir ñu xam loolu yi dafa am fu ñu koy jaar ngir ñu xam ne nit ki am am ñett yooyu mate na ko li ci jiitu mooy bu fekkente ne xam nañ ko jëmm joo xam ne xam nañ ko ci wàllu xam danañ ko danañ ko testé. Mhm. niñ koy testé ñaari anam la. Mhm. mooy ñu defal ñu def loo ko modéré. ñëw ci jumaa ji euh, présenté benn borom xam-xam ubbil ko tëjal ko foofu danañ xam ndax kii. xam na ni ñuy waxee ak it ndax mën naa wax ci barab bi mhm. bu loolu jàllee léeg-léeg danañ ko testé ci waxtaani màggal bi ndax léeg mooy gën a woyof ndax mhm. lu mu bon bon wala boog lu mu baax baax danañ ko génne ci ba ci bitti dëgg la xëy na worma ji ci biir ni muy gënee fese ak ni muy gënee màgge boo ko génnee ci bitti mooy mooy tane mhm. léegi bu ñu xoolee yooyu yëpp nag ba mat ci lañuy jël thème yi par benn benn thème sàngam kuñ ci xalaat ci biir réunion bi lañ ko joxee mm-hmm. réunion bi nga xam ne mooy dajale ñëpp mm-hmm. ñu ne xalaat nañ ci diw lu tax ñu xalaat ci diw mm-hmm. xalaat nañ ne mus nañoo gis ne waxtaan na ci wala dégg nañ ne bind na ci wala jëmmam dëppoo na ak euh, tomb bu mel nii wala ab jàngalekat la ci wàll gi ci wàll googu lañ koy xool kon nañ ci xool taxasus ndax lii lu mu jekku la walla nekkul lu mu jekk kon loolu mooy mooy waxtaan yi noonu la tëddee ci gàttal tey eh, wax naa ko ren am nañ juróom-ñetti dars bi ci jiitu mooy weeru koor jubluwaay yi ak àtte bi ñaareel bi mooy li ñu tuddee eh, ku koy def waaw ki koy def mooy eh, sëriñ Cheikh naa bu sa cumbuleen mooy mooy mooy waxtaan wi jiitu mm. ñaareelu bind bi mooy tuumaal nit tuuma rawatina jigéen wala nit ne ko waajuram juru ko wala yu mel noonu loolu gis nañ ne léegi bari na lu muy am lool. dëgg rawat na ci jumtukaay yu jokkaloo yi bi mu tasaaroo. Mm-hmm. daanaka bari na ci émission yoo xam ne sax daanaka loolu moo ko tax a jug. Mm-hmm. mooy nit. Mm-hmm. tuumaal nit mooy lan ak yan àtte moo ci aju moom bind la boo xam ne dañ koy fàttali ndax mi ngi ci fekk. dëgg la waaye dañ koy fàttali xool ci anam yi mën a amee. ak it eh, yan àtte la ci lislaam teg loolu Serigne Mbacke Abdourahmane moo koy def. beneen bind bi mooy eh, tawati xol ak nan lañ koy saafaraa. ba mooy ay iñaan ak ay rëy ak yu aju ci yooyu comme ni ko sëñ Tuubaa jàngale ci Masaalikul Jinaan mm-hmm. loolu it bind la boo xam ne sëriñ Muntaxaa Jatara moo koy def mm-hmm. beneen bind bi euh, mi ngi aju ci asaka ak jubluwaay yi ci lislaam am moo xam jubluwaay yu aju ci wàllu social la lu aju ci wàllu diine lu aju ci wàllu économie mm-hmm. loolu ki koy def mooy Serigne Cheikhouna Mbacké moom si Murtala moom si Fàll bokk na ci bind yi tamit euh, juróom yi nga xam ne lislaam dafa wax ñu sàmm ko mu nekk ay ponk yoo xam ne euh, yu am solo la loolu ki koy def mooy ku ñu wax Abdul Xaadir Buso Alhaji Cheikh hmm. euh, bokk na ci tomb yi tamit yi nga xam ne dañ ko jàppe ay bind muy waqfu fu kon nga ko doon junñe léegi hmm. waqfu muy lan ak ban solo la am ci lislaam bokk na ci bind yi mooy aj ak jubluwaay yi ci charia am bu dee waqfu bi sëriñ docteur Cham Buso Abdourahman moo koy def hmm. bu dee aj ki koy def mooy sëriñ Mbàkke Lo Muhammad mm-hmm. gis nga boo gisee comme li ma waxoon li lu ci baree bari da ciy feeñ mm-hmm. ndax bu dee azaka li tax ñu jox ko sëriñ naa am na sabab soo xam ne ku ko dégg te xam sëriñ Cheikhouna da nga xam ne li ñu jox ko ko dëgg la dëgg la bu dee waqfu bi buñ ko joxee sëriñ Saamit gis nañu ay yëngoom mm-hmm. ak it euh, yàgg taxawaay yu ci yàgg am ak ni yàgg ci azhar ak azhar ni mu seen mulisee waqf bu dee aj Euh, sëriñ Mbàkke lu Muhammad mu gis nañ li mu ci bind mm-hmm. li mu baree mm-hmm. bokk na ci it euh, azaka yi muurum koor ak jullik ñaari iid yi te mooy euh, korite ak tabaski mm-hmm. loolu bind fiq la bu am solo boo xam ne ñu ngi ko jox sëriñ laxat bu Bousso Afia jàngalekat bu mag boobu nga xam ne tey ndaw yu baree bari ci daaraam lañ génne loolu moo aju ci bind yi bu ñëwee nag ci thème yi bokk na ci mooy dëggi dëggi tasawuf fi sëriñ Touba mooy lan jox ko sëriñ Afia ñang xam jëmm ji ak thème bi méngoo nañ lool. dëgg la. Euh, bokk na ci thème yi muy ab jullit naka la mën a dunde ci suñu gouvernement yi nga xam ne dafa dafa lalu ci laïcité. Hmm. loolu ñu jox ko koo xam ne ku xam jamono la ku yàgg gëstu ci wàllu googu la muy Serigne Moustapha Diop Ndar. Hmm. bokk na ci islaam ak politique. Hmm. ñu jox ko Serigne Abou Madiana Chouaïb bu Kébé. ku ko xam bu baax a baax xam situation yi mu nekk. buñ ko joxee. ak ni mu yàggee gëstu. dëgg la ak ni mu amee ay relation ci ci biir réew mi ak bitim réew. Euh, buñ ko joxee lislaam ak politique xam nañ danañ ci mën a wax bu baax a baax. tëralin yi am ci njànginu Tuuba. Euh, fi ne nii ni muy ni muy doxee ak lan lañ ciy xaar. loolu it ab thème la boo xam ne ñu ngi ko jox inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang. inspecteur boo ko joxee lu mel nii. xam ne jox nga ko wàllam jaadu na. li ñuy wax liberté ci lislaam mooy lan. ak fan la tàmbaleeg fan la yem loolu ñu ngi ko jox sëriñ bu Boussa Hassan mhm. ku xam sëriñ Fallou it bu ñu ko joxee thème bi da nga xam ne jàpp na ko loolu macha allah euh, bokk na ci thème yi mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi ak i màndargaam yaakaar naa ku yàgg a teewe gàmm yi ñu fi daan def euh, di teewe waxtaan yi daa nga gis bu baax a baax a baax sëriñ bu Boussa Tamba ni mu ko ni mu ko daan traité mhm. kon bu ñu ko joxee wàll gi it mhm. xam nañ ne jox nañ ko loo xam ne it mbiram la ger li ñuy wax rachwa ni mën a feeñe ak jeexit ji mën a am ci euh, nit ak ci société loolu ñu ngi ko jox sëriñ Xaban Mbàkke Mortada moom it jàgg nañ ko jox euh, ay thèmes yoo xam ne nii la nii la tëddee mm-hmm. sëriñ Touba ak ni mu yitte woo tawxiid loolu ñu ngi ko jox sëriñ Maam Moor Mbàkke Hamdi mm-hmm. loolu it kenn ku ci na xam ne ne thème la mm-hmm. boo xam ne bu koy yomb lay doon ay àtte yu aju ci wàllu alal ci biir néegu sëy jox ko sëriñ Cheikh naa Mbacke Abdoul Wadoud mhm. dem la boo xam ne ci fiq la jëm mhm. euh, wàccuwaayu saxaaba yi ci sëriñ Touba ni ko ci ni ko sëriñ Touba jàngale moom ñu jox ko sëriñ Mourtada Silla moom ku ko xam ci nit ñi <laughs> yëngoo ci wàllu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi mhm. bu ñu ko joxee thème bu mel nii tomb bu mel nii lëkkale ko ak sëriñ bi moom it xaa xaar nañ ci liggéey bu rëy rëy jàmm ci ni ko lislaam jàngale ak gisin yu mu ci am loolu ñu jox ko docteur Khadim Silla hmm. euh, bokk na ci tam mooy euh, gone yi ak seeni waajur yan àq moo jox ci seen diggante ak yenn yelleef yenn warteef moo dox ci seen diggante hmm. jox ko Sëriñ Fàllu bu sa Cerno hmm. ab mudir la directeur u école la boo xam ne bindkat la gëstukat la bokk léegi ci mag yi mag yi dëkk bi di ku ñu xam di yar yar ñu baree bare <laughs> waaye it euh, di waajur ci ñu baree bari man mii di wax di ca kenn hmm. kon it bu ñu ko joxee toom bu mel ni yaakaar naa jox nañ ko borom sëriñ Touba nitu yàlla ku mag ki ñu jox ko sëriñ Ahmad Mbacke Darou Mouhty ba tey hmm. yaakaar naa jam bi moyagut hmm. sharia ak xaqiqa mooy lan ak ci yan cis lay la aju ñu jox ko ku baax ku ku ku ñu xam ci ak euh, jaamu yàlla ak pëseef muy sëriñ Ahmad Samb mu diiru Al Azhar bi nekk daal moom it yaakaar naa tom bi jàpp na ko lool eh, rolu juma ban taxawaay la jàkk war am ci dundu ab jullit ñu jox ko koo xam ne ab falak yi la ko xam wàllu falak xam rëddiinu juma eh, doon na ko ci ay baayam ak i maamam muy naa Cheikhouna Bousso Sidi Moulay yaakaar naa moom it tom bi jàpp na ko lool dëgg la eh, sumb wu mag wi nga xam ne moom la murit bi sumb ci wàllu jàngale ak yar te mooy université beeg ya ci aju wala boog complexe bi ak naka lañ ko mën a financé hmm. ñu jox ko koo xam ne ku ci yëngu la bokk ca njiit ya ca hmm. njiiti programme mooy hmm. docteur Abdou Lahad Lo moom jàpp naa ne ba tey euh, lu solo la euh, ak dëkk ak dëkk dëkk ci ab dëkk nekk citoyen euh, yan àq moo ci am ak yan yelleef moo ci am loolu jox ko Serigne Fallou Moussa Assane moom jàpp naa ne thèmes yu mel nii baaxoo na di ko def. Mm-hmm. bu loolu jàllee it euh, am na fi ñeenti fatwa yoo xam ne mm-hmm. dana fi am muy ay tonti laaj bokk na ci ki koy def bu njëkk bi dana ko def euh, Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wudud bu ñaareel bi Serigne Mbacké Abdou Rahman bu ñetteel bi Serigne Cheikh Boussa Hassan bu ñeenteel bi Serigne Cheikhouna Abdoul Wudud tamit. macha ñett ñoo xam ne naka jekk ñu daan def ñu daan taxawee fatwa yooyu. Mm-hmm. kon loolu lenn la ci liggéeyu koor gi muy muxaadara ji muy thème mm-hmm. yi waaye nag xëy na du ñàkk bu fekkente ne euh, ñëwaat nañ ci kàddu gi xam ne yeneen taxawaay ak yeneen liggéey yoo xam ne euh, commission culturelle dina ko liggéey te muy aju ci wàllu formation génne ay téere rek gaaral ko yu mel noonu xam naa dañuy bàyyi ba macha allah kàddu gi desiwaat incha allah jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Khadir yaakaar naa programme bi su fekkonte ne bii àdduna bépp xam nañ ko dana bari lool ay communication dana ci am liggéey bu rëy ndax site yi ko war reprendre te defal ko tradiction da cee bari yaakaar naa ne lii génne ci jumaa ji laajoon na mu am tradiction ci anglais am ko ci arab am ko ci français ndax kat jullit yi dañoo séddalikoo ci ay xeet yu bari ci ay làng yu bari rawatina murit gi waaye ragal naa ne thème yu mel nii bu ñu ko traduiroon ci langue yooyu tisaare ko ci àdduna bi buñ ci àggee da gis ne site internet ya nekk Amérique ya nekk France ya nekk Arabie Saoudi danañ ko reprendre bañ xam ne ndakate lii mooy dëgg-dëgg yi tarix muridiya lii mooy dëgg-dëgg Cheikh Ahmed Bamba lii lañuy la ñuy dundale ci Touba. yaakaar naa ne amul jenn jumaa ju ne ci àdduna bi wala barabu yàlla bu nekk ci àdduna bi boo xam ne da nga dundale weeru koor nu nu mel ne ni ko waar Tuubaa di dundale rawatuma ba ba di ko gën yaakaar naa ne ci wàllu waxtaan surtout nag thèmes yi ngeen tànn nga xam ne thèmes yooyu bu dajee ci doomu aadama yi rek mooy nit ki mat na mooy yii moom bu dajee ci doomu aadama yi nit ki mat na ba noppi nag li ñuy wut te mooy jàmm su thèmes yooyu buñ traité thèmes yooyu teñ ko jàmm mën naa am ci àdduna bépp ak réer it mën na fee dàqu te it yaakaar naa ne mm, kenn du ku dégg tam yi itam xam ñiñ koy wax ci ñëpp di doomi Touba jànge doo dootoo bokk ci ñiy wax naan murit yi moom jànguñu danga nga naan ndekete murit yee fi raw yaakaar naa loolu feeñ na ci bu baax a baax kon sa njiili eh, yow lay ñëwal mm, nga ñëw nag ci wàllu communication yow nag ginnaaw yaa yor sunu bànqaas muy sunu mat te lii dafa laaj communiquer dafa laaj communication te ñu bëree bari dañuy jaawale information ak communication lii moom lii sëñ bi wax information la waaye nuñ buñ ci àggee nu ñuy fexee nag ba mu nekk communication ci diggante ak àdduna bi nga xamante ne bii waajtaay yi ñu war a jël ba lu mel nii amee nii solo nga xam ne sëñ bi informé nañu ko nga xam ne am nañ information bi xam ne am na luñ dëgmal liñ dëgmal buñ ci àggee nu ñuy fexe ba mu war a mën a àgg fépp ba noppi ñu jot ko ci nañ ko bëgg a jotee waaw axusu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Fallou Gora Sylla ci ubbi gu am solo gi nga xam ne ubbi nga ko waxtaan wi muy waxtaan wu am solo woo ne euh, comme ni ko waxee léegi rek bokk na ci taxawaay yi nga xam ne communication moo ko moo ko sos ngir communication moo ko sos. ngir fésal. li nga xam ne mooy daayira mu xadamatul xidma am liggéeyam. kon moom tàmbali woon na bu yàgg. di fésal li nga xam ne moom la yëngut yi nga xam ne mooy xew ci jumaa ji. ñuy njëkk a fésal koor gi nga xam ne moo jàlloon daaw. jëlaat ci ay lu mel ne ay séquence wane ko muy def benn saaru documentaire bu ndaw bu gàtt boo xam ne dana fàttaliwaat nit ñi euh, weeru weeru fàttaliwaat ñi nga xam ne tamit ñu ci day ñu ci day yooyu rek man ko man ko bàyyi xel euh, ginnaaw bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma koor gi dëgmal na hmm. dafa demaat laajiwaat ndigal hmm. mooy ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon ngir ñu euh, dundal weeru koor mm-hmm. biñ demaatee ci sëriñ bi mm-hmm. mu mu mu mu yeesalaat ndigal li mm-hmm. mu ko yeesalee nag ci la euh, communication daal di daal di jug nag euh, daal di fexe ba mboolem jumtukaay yi nga xam ne communication dana ko aajowoo mu fexe ba am yooyu fexe ba tamit am ñu ko ciy jàppale ñoo xam ne ñu ngi ci biir daayira bi ak ñoo xam ne ñu ngi ci bitti daayira bi ci wàllu technique ak ci wàllu ñu ngi fexe ba li mu war a fesal ñu ngi fexe ba gën a jekk gën a baax gën a rafet ci la nag tàmbali ab liggéeyam daal di eh, leeral ndigal loolu nga xam ne moom la sëriñ bi sëriñ bi joxewaat muy ndigalul dundal weer bi mm-hmm. ñu ñu ñu fexe ba mu mën a jàll ci ñépp mm-hmm. te loolu def nañ ko ci bind ngir bind boo xam ne mboolem réseaux sociaux yi nga xam ne ñoo nekk fii ci gox bi mm-hmm. jot nañ ci ba fésal ko ba ñëpp xam nañ ne sëriñ bi yeesalaat na ndigal li euh, xam ngeen ne communication dafa aaje luy tax mu mën a àgg ci nit ñi mm-hmm. lii tax mun a àgg ci nit ñi nag xam ngeen gox bi ñu nekk dañoo sos ay ay groupe yoo xam ne euh, dana dajale mboolem ku yëngu ci wàllu communication walla képp koo xam day yëngu ci wàllu euh, feeñal yi nga xam ne mooy xew ci gox bi mm-hmm. nekk na foofa ñu ngi nuyu sëriñ Assane bu moom mi nga xam ne moo jiite kuréel googu ci lan fàttaliwaat kuréel boobu xam leen leen weeru koor wi dëgmal na te dafa am lu ñu war a feeñal loo xam ne eh, ni ko suñu Abdul bu Bousso Mokhtar eh, waxe léegi eh, ci mboolem li commission yi nga xam ne moom la moom moom mooy mooy moom la daayira Moukhaddamatoul Khidma amee te ay yëngatoom nekk ci weeru koor bi bi ci njëkk léegi wax nañ ko xam nga koor moom ba daari mu xaddama xidma da ko da ko séddale ñaar dundal ruu yi ak dundal yaram yi bi ci bi ci jiitu nag mooy dundal ruu yi dundal ruu yi nag Cheikh Abdou Khadir léegi leeral na li nga xam ne euh, commission bi nga xam ne mooy mooy commission culture Euh, tër na ko ci ay waxtaan waxtaan yooyu mu séddale ko ci ñetti xaaj muy ay ay ay duruus ak ay fatawa ay ubbe ak ay euh, euh, ak ay ak ay tem ay ay yoo xam ne dañ ciy waxtaan kon loolu nu ñu war a fexe ba ba jàll ci nit ñi moom laa wax lay wut nañ jumtukaay yi nga xam ne moo ko war a jàllale wut nañ xerañteef yi nga xam ne tamit incha allah dana gën a dana gën a jàpp ne ci nit ñi dana gën a woyof ci mbooleem yi nga xam ne ci leen nit ñi nit mën koo amee euh, fekkee na ci Europe Africa Africa TV euh, ci box boobu nga xam ngeen MK TV ma nga fa ah. moo xam moo xam MK TV ma nga fa hmm. Euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci bit réew yëpp dana ko mën a seetaan foofu. Hmm. ñi xam ne ñoo nekk ci biir biir réew mi tamit hmm. danañ ko mën a topp ci MK TV ci euh, Facebook bi wala ci ci YouTube bi. Hmm. Euh, danañ ko mën a topp tamit ci mbooleem organes yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir Touba. moo xam site la moo xam ab seenu YouTube la moo xam seenu Facebook la moo xam tamit ab télévision la. ñu ngi ci. ñu ngi ci nuyu bu baax a baax euh, Lamp Fall télévision mm. ñu yàgg ànd ak ñun la ci mm. ci ci ci ci liggéey bu am solo bi rawatina mm. euh, rawatina ci weeru koor bi mm-hmm. euh, al al Mouride tamit dañuy ànd ak ñun ci liggéey bi Touba TV tamit dañuy ànd ak ñun ci liggéey bi sites yi nga xam ne ay sites yu mag la ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci liggéey bi lu mel ne asalaama yi moom tamit ci la bokk académie minan euh, alxadimiya euh, touba vision euh, bisri tv ak siiwal siiwal tv ak rafa tv ak touba monde bi tv ñooñu tamit ay site la yoo xam ne lépp loo xam ne daayira mu xaddamatu xidma yëkkati na ko rawatina muy lu lu jóge fii ci jumaay Touba buñ ko yëkkatee rek ñoom ñëpp dañuy ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba ba tàmbali ko ba mu jeexee kon loolu euh, mooy groupe bi nga xam ne lëkkale na kii bi rajo yi tamit rajo yi nga xam ne ñoo nekk fii ci gox bi am na groupe bu leen lëkkale boo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo ko sos lëkkale leen ci ñoom ñëpp ñoom tamit ñëpp ñi ngi waaj ngir mën a fësal li nga xam ne moo fi moo fi moo fi bàyyikoo moo xam ci waxtaan yi la moo xam ci dog yi la euh, xam ngeen ne euh, ginnaaw ginnaaw fësal la te lu baax dañ ko war a fësal dañ ko war a fësal ba ñépp jot ci man caaro yi ba ba euh, ba njariñ li gën a mën a gën a mën a yaatu xam ngeen ne li nga xam ne lépp li daayira Muxaddamatul Xidma di jëfandikoo ci ci koor gi ay nit nit ñi rek ñoo ko fi indi dëgg la nit ñoo ko mooy bépp bépp bépp jullit boo xam ne bëgg na lu baax bépp murit boo xam ne euh, mu ngi safoo liggéey bi ñëpp rek moo xam biir réew moo xam bitim réew la képp koo xam ne indi na fi doonte benn benn tàndarma la mm-hmm. wala doonte benn dërëm la ba ci ba ci ba ci ku mën a sax indi milliard man xam ne mën naa financer koor gi ba financé waat yi nga xam ne moom moom la ñuy ci jumaa ji ku fi indi lum tuuti tuuti. danañ ko fésal ba. ñëpp a xam ne. waaw ah, def euh, sëriñ nangam indi na fi indi na fi lii. Euh, bar def ko ci koor gi. Mm-hmm. ndax yonent bi dafa sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne dogal nag. nit donte benn tàndarma la ko jox hmm. am na yoolu lu tolle koor ak kooka te ak kooram du ci yàq dara macha kon loolu kon lu am solo la dëgg la mu dellu waxaane tamit hmm. koor ñaari mbégte la hmm. nit ki bu dogee kon lii tax nit ki bu dogee di bég kon loolu war nañ cee war nañ cee sonne bu baax a baax fésal ko ba nit ñi mën a mën a fexe ba jullit bi bu bu bu bu wooree ba dog jot mu dog ci dog it woo xam ne mu neex lay doon mbég googu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko mu mu mën a mu mu mën a am meneen mbégte moom ëllëg la ëllëg la mm-hmm. yowal xiyam waaye nañ jéem a fésal mbégte mii nga xam ne nag moom la moom moo nekk ci àddina mm-hmm. kon daal feex dana wut nañ jumtukaay yoo xam ne mm-hmm. dana mën a fésal waxtaan yi nga xam ne moo fi am euh, ak jum jumtukaay yi nga xam ne euh, waa waa commission organisation dana ko danañ ko def mm-hmm. danañ fexetim ba fésal yooyu ba képp koo xam ne bëgg naa jàpp ci fànn ci fànn googu mm-hmm. man ca man caa man caa jàpp euh, danañ fexetim naafili yi nga xam ne moo fi am naafile yi nga xam ne moo fi am nit ñi man ko jot ci anam gu gën a gën a gën a baax ginnaaw wax naa léegi ne dafa am groupe bu bu bu tasukaayu xibaar yi yoo xam ne ñoo nekk ci gox bi nekk ñoo ñëpp dañuy jël lien yooyu di ko mën a di ko mën a da ngay créer benn lien séddale ko waaw dañuy créer benn lien boo xam ne du am logo du am mbind du am dara xam ne képp koo xam ne jot na li lien boobu ci siitam mooy xool logo ba mu ci bëgg a def mbind mbind la mu ci bëgg a bind mu bind ko ci jàllale ko na mu ko na mu ko bëgg a jàllale. macha allah loolu nag day aaja ay jumtukaay yu yu am solo. ñu ngi ci nuyu Serigne Bara moom Cheikh Serigne Sohaibou euh, bi bi mu yëgee ne ñu ngi ñu ci wàccaay wi lijjanti na ay ay jumtukaay yu am am solo yoo xam ne. dana tax ñu mën a ñu mën a am ñu mën a am euh, fésal boobu xam ne moom lañ wax léegi. Euh, sëñ ji lii taxaw tuuti ci communication yeneen kii sax euh, commission yi ñu baal ñu. Mhm. Euh, gis naa ne li ngay wax lépp mu ngi jëm ci lu jëm ci wàllu image. Mhm. waaye ndax jumaa ji am nañ am nañ émetteur pour son ak fréquence pour rajo. waaw loolu moom amagu waaye ñu ngi koy ngi koy ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy sàkku tamit. ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo ñooy joxe wàllu googu mm-hmm. ñu mën a ñu mën a am boobu ba ñu mën a am émetteur boobu nga xam ne mm-hmm. dana tax fu mën a nekk ci Touba ak biti Touba mën koo kii mm-hmm. rawatina tamit télévision bi nga xam ne mooy MK TV moom tamit ñi ngi koy ñi ngi koy sàkkuwaale ba ba ba ñi tamit mën koo gën a mën a am ci seeni kër xam ne du ci internet lañ koy mën a lañ koy mën a am euh, boo gisee ma taxaw foofu sax lu mel ne émetteur dafa doon loo xam ne lu munta ñàkk la ndax nit ki ne ci àll bi te bëgg a dund ci amul connexion dafa mel ne son moo gën a gaaw ci moom mhm. te mel ne bu fekkonte ne bii yàlla dogal na ngeen am lu mel ne émetteur da ngeen daal di mën a émetteur mhm. nga xamante ni bii nit ki dana man fa mu nekk ca àll ba cay toolam wala moo xam mu ne ca euh, ginnaaw dëkk bi mhm. mën a am son bi bu waxtu doog jotee mu xam ko euh, euh, conférence yi ciy jàll mu mën di ko xam ak yu demee noonu loolu waaw loolu tamit lu am am solo la. Mm-hmm. ba tey tamit am na ay ay ay yeesal yoo xam ne tamit amal nañ ko ci programme yi nga xam ne. ñu mm-hmm. ngi jàll ci MK yi ak euh, GMT TV. Mm-hmm. Euh, bokk na ci yóbbalu koor. yóbbalu koor. xam ne day jëm ci day day dañuy waxtaanee koor. koor ak ya ci aju yëpp xam ne képp koo xam ne bëgg naa xam koor dëgg-dëgg naka lañ koy defee. Euh, naka la ñuy koore hmm. ak farata yaag sunni yaag yan ca sopp ak ngeneen ya hmm. boo boo bàyyee xel MK TV incha allahu taala hmm. euh, ku ñuy wax sëriñ Abdul Xaadir Bousso moom moo koy moo koy def euh, bokk na ci yi nga xam ne tamit ay ay ay ay émission yu bees la boo xam ne tamit danañu dimbale ci koor gi muy journal de journal de Ramadan boobu tamit ab journal la boo xam ne Euh, lépp loo xam ne xew na ci ci jumaa ji ak ci ak ci Touba euh, dana leen ko indil euh, ngir ngeen mën a dund dund bu baax a baax jaww jaww yi koori Touba xam nga loolu tamit da cee da cee da cee am da cee am solo am solo loolu nag xam naa kon dañuy yemale foofu kàddu gi. macha allah am na am na yeneen programme yoo xam ne tamit mm-hmm. bu bu bu bu bu koor bu koor bu bu koor bu koor ñëwee dañ koy dañ koy taxawalandi mhm. ba ban génn koor gi eh, am na comme ni ko sëñ Abdou Khadim doon wax léegi mhm. ci fata fatwa yi léeg-léeg eh, laaj yi di bare bare bari ba nga xam ne mhm. du xaj ci koor gi bu buñ génnee koor nag am na émission bu am solo bu ñuy def boo xam ne mi ngi tuddi gàggantiku Serigne Abdoul Ahad bu sa Cerno moo koy moo koy moo koy moo koy saytu mm-hmm. danañ ci continuer laaj yi nga xam ne des na ci koor gi tamit ñu kii ko yooyu tamit ñu am solo la mm-hmm. am na yeneen émission yoo xam ne tamit mm-hmm. euh, dunduk sëriñ bi Serigne Fallou bu sa Tamba moo koy def am na yeneen émission yoo xam ne tamit dund dund dund yonent bi sallallahu alayhi wa si siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Murtada Sylla moo koy def Euh, am na tamit émission majalis kon scène bi ab ab kii la boo xam ne. waaw day day day continuer xam ne day bañ bu ko bu koor jeexee rek ñu jàpp ne foofu la. dëgg la dëgg la dëgg <laughs> foofu la am day dund ànd ak jumaa ji day dund ànd ànd ànd ak. jumaa ji wala ànd ak Touba waxtu yi ak waxtu yi kii yeeg yëpp. ndeysaan euh, kon kon loolu nga xam ne dana xew ci jumaa ji ñu bëgg koo fésal. Hmm. danañ ko ànd ak mboolem organes yi xam ne nekk ci bi. Hmm. moo xam. site la moo xam rajo la. moo xam télévision yi xam ne dañoo aju ci yoon wi. macha allah ndax ndax ndax ndax euh, da ngeen euh, utiliser Instagram. waaw danañ danañ danañ utiliser euh, Instagram danañ hmm. utiliser WhatsApp. Hmm. danañ utiliser tamit Telegram. macha allah am na tamit benn WhatsApp boo xam ne tijji nañ ko. Hmm. boo xam ne nattukaay la. Mm-hmm. nattukaay la boo xam ne li si Abdou Khadre doon waxtaan doon wax ci waxtaan yi mm-hmm. lu mu doon lu wax ci waxtaan yi xam ne da koo da koo da koo sédd la ñetti xaaj mm-hmm. yoo xam ne ay duruus la yoo xam ne ay fatawa la yoo xam ne ay muhaadaraat la yooyu whatsapp whatsapp boobu li muy jariñ mooy nit ñi di ci joxe seen xalaat ndax ñoom duruus yi lañ bëgg ñu gën koo yokk wala fata fatawaaye lañ bëgg ñu gën koo yaatal mm-hmm. wala conférence yi nga xam ne di dañuy jël ay ay tomb yu wuutee wuute mm-hmm. lañ bëgg ñu gën koo ñu gën koo fësal mm-hmm. euh, boobu tamit numéro ba ñu ngi ñu ngi ñu ngi doon 78 de 06 42 175 06 42 78 175 06 42 képp koo xam ne bëgg naa joxe joxe gis-gisam ci waxtaan waxtaane ak euh, bëgg ñu gën a yokk dara wala bëgg ñu gën a wàññi dara bu demee ci numéro whatsapp boobu incha allah euh, lu mu ci bëgg a wax rek danañ ci jot. danañ ko danañ xool nu ñu koy mën macha allah fexe ba mu gën a mën a jëm ci kanam. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Jili ndagate communication ñu ko yor ndagate liñ bëgg leeral mën nañ koo leeral. waaw leer na nañ tey dañ ko woon oh, sisiroon na ko kaay wax ñu leer nañ ndax yor suñ communication bi rek di di di ñu ree di wéy du mën wéy euh, kon sëñ Maxtaar yow nag yaakaar naa ne faaw nga indi détail ndax yow ñii ñëpp nag yaa leen di yaa di lijjanti social lim fi lépp lépp euh, culture communication ñëpp nag kenn ku ci nekk nag ñoom yaa leen di lijjanti ndax yow yaa organisation bëggoon nañoo xam nag mbirum organisation li ngay organiser ak li koy organiser yaa ngi organiser ci conférence ba yan jumtukaay la laaj yan matuwaay lañ ci war a jël yaa ngi organiser si ndogul yi yan matuwaay la laaj lan la war a jël soo noppee yaa ngi organiser naafile ga yaakaar naa ne weer wi lépp organisation laaj ñetti pàcc yi nag mooy li ci gën a fës bëggoon nañ nga leeral ci bokki taalibe yi bismillahi rahmaani rahim barakatu xaadimu rasul maa ngi nuyu jotaay bi yëpp di leen jaajëfal bu baax di am mbégte lool nag ci ànd ak yéen ci émission bi di rafetlu tamit kàddu yi fi jaar yëpp xañ na leer na trop ci ñu fi jaar li wax tamit mooy liggéey bi daa fekk ne ñoom bu naale ba pare nag ba teg ci aw yoon ne doxaleen nii xàll yi koy àggale fa mu jëm ci lay dox ci lay wax tamit ci loolu biñ jubee koor gi dégg tamit naal yi xam ne ni comité bi naal na ko ni bëgg a woore loo xaaj ñun suñu liggéey ci ñett xaaj xaaj njëkk bi mooy waajtaayu jumaa ji ndaxte bu fekkee ne fi ne fi lépp euh, lépp lu fi mën a lore ci ay gaañu ay ay ay ay bant wala ay desiti ay karo wala ay feer yu nekk benn côté waras naa jël yëpp feggal ko ba kenn du fi benn gaañu gaañu. Mhm. niki noonu tamit làmp yi bépp làmp am ayib ci lakk wala boo mu desee leer waral koo soppi ba ci waa yëpp ànd leer. Mhm. lépp luy ventilo tamit kasaalika lépp luy lind lépp luy jumtukaay boo xam ne nii koor da koy soxla ci jumaa ji ñu gaaw waaj ko balaa ko war a ñëw. kon entretien général da ngeen ko def. moo tax def nañu sens nañu lu mat 700 piles yoo xam ne nii dafa amul ay ayib. 700 piles. ci wàccaayu koor gi. ànd ak fëgg lépp luy poussière wala luy lënd waajal ko jumaa ji sëgg lépp teg ca dem ci bagage yi fi nekkoon. dem xooli ko la ca amul am la ca am ay ayib wala sikk ñu génne ko ya fa des te baax te mën a woor ñu xool lim bi xool liñ ci dolliwaat jébbal commission bi yoon loolu kon noonu la waaje wàccaaw njëkk wi ci biir koor gi ndegam koor gi da nga dogal lu mat ñeenti junni nit loolu mooy ñu dog si dong par bis par bis waaye mbooloo mu takkoo takkoo dugul si waxtaan wi mbooloo mu baree baree ñëw tamit ngir serlu si seen yaram toog bëgg a toog fenn fu ser seen yaram loolu lépp laaj kaaraange laaj waajtaay moo tax ci wàccaaw njëkk wi dama def amal ay formation ci ñu ni liggéeyee ndoolu ñi xam ñoo war a taxaw loolu ñu waxtaan ak ñoom waajal leen ci wàllu jikko ci wàllu cet ndaxte xam ne ay joxe joxe mburu joxe ay kafe dafa laaj cet mm-hmm. ñu waajal leen ci ñi war a solo ak ñi war a moytandiku misaal joxe am ñëw di wokk toog mel noonu mm-hmm. ñu waajal li ñu wàccee yoo xam ne nii ñoom dana mën a wàccoog ak cet bi nga xam ne nii melokaan bi nga xam ne nii moo la ñu may war a mel mm-hmm. xam ne koy jox lu muy jëfandikoo dana sawar. mu xelam dal mu xelam dal. te lépp loo xam ne dana jur tamit mu daw ki nekk. kadaalika nit bu ñëwee tamit ak melokaan woo xam ne nii du melokaanu jumaa ni nga koy dalale ba jëm koo orienté ba mu fekk si la ci ni nga bëgg mel ko. loolu wàccee yoo xam ne moo jiitu ci koor gi. ak lépp loo xam ne nii mën naa ndox. jumaa ji dafa am ndox mi day jël ndox bare bare jéem a sécurité mboolem luy ay canon hmm. ba ndox mi hmm. du taa du am loolu lépp mu ngi leen ci ci biir avant bu ñëwee nag ci koor gi nag ndegam sëñ bi wax na lim naal ci ay conférence te jumaa ji ni ko si nga doon wax sax mooy lépp ñëpp fiy ñëw hmm. kon war noo waajal ay nit ñoo xam ne nii li ñuy def ñoo koy def ci njëkk mooy li fi ñëw ci bagaas ñu bàyyi ko ci ay kilifa ñu koy indi ci ndogu li mën koo recevoir man koo sàmm man koo saytu ba mu dem fan fan fan dem loo bind ko man koo yaxal ba ku laaj nga xam ne diw sàngam andiwul fi sàngam kooku dana xëy si 6 ba ginnaaw gée li fekk tij njumaa ji du dem ak commission la mm-hmm. ci tënk rek am ñoo xam ne li ñu sant mooy li ñu fi indi muy wàllu jëfandikuwaay yi ñu war jëfandikoo mm-hmm. café yeeg meew yaag ataay yooyu tamit ñoo koy taxawe mm-hmm. mu ñoo ñoontu dañ leen waajal ndax te fan yi sax ñu ngi ñu ngi xalaat ne ndaka am xaw na loo bari dafa leen visite compte visite ndax kenn ci ñoo xam ne def ñoom amuñu feebar boo xam ne nii mën naa feeñ ñoom dañ doon ndoxi siti man ñu ñu am ay ay ay ay taas yoo noonu hmm. ba commencé ko tànn sax ngir bëgguñu kenn def loo xam ne nii ku la xool day am mi muy xebat ak fan koy def jumtukaay to ñu xool jumtukaay mu ne jumtukaay yi gën hmm. ndax jumaa ci ndax moo gën ci ci suuf si hmm. gën ci tubaa tamit dafi nekk daa war a gën waaj loolu wut commission bu am solo boo xam ne tamit ndegam ñeenti junni nit ñooy ñëw jumaa ji hmm. wala doog si hmm. kon fu njaay wut ku leen ku leen teeru ak kay ñooñu tamit waajal leen ba bu koor gi commencé ak nit ak nu mën di ñëwee hmm. dara dog loolu dafa dafa aw gàtt. dëgg la cinq mille dong la. ay ñeent nit ñëpp soxla soxla benn benn jumtukaay. ci benn waxtu benn waxtu. ñu waajal ñoo xam ne tamit. dana mën a dal xam ne waa ji lu mu lu mu fatt fatt lu mar mar lu mu bëgg bëgg dem da nga ma tey yow ma delloo si ko jox ko lim soxla doon day xeex ak yow dëgg la ci li jox exemple sax daan sax daan hmm, fekkoon tey jii dangaa yow yor benn tàndarma yi sax yow yor ko gis koo xam ne nii doogut yow dogal ci leneen te jox ko ko hmm. tey bu fi kilifa tamit ñëw di am benn jafe-jafe maam dara réer tax loolu tamit dafa tax ñu daal ñoo bu ñëwee ci koor seen ité yëpp mooy marocain yeeg yow yow yow mi ko bëgg a euh, dogal waaw dogagoo waaye te yéen a yem waaw la nga jéem jox dog ma nga ngërtu allah lan lan lan lan lan lan lan ñëpp tey fu waaye taxawee tamit bunt wala ci place def benn liggéey saa bu jëriñ ñëwee moo xam man mi muy monsieur Abdoulaye Bousso Thierno wala bu ñëwee la mu wax ki teg baat ndaxte li nga bëgg a def ñoom bu absenté du sotti. kon ñi fi indi ay gar tamit ñoom bu leen gis tamit gar nu mën na mel bu leen bàyyi bàyyi ñu jéem tamit ba ñi ñi ñi yor sécurité bi di ko àggale ba ginnaaw naafila xam ne naafila gi ni muy mel ni ko ni doge noonu lay mel. fu mhm. war a takk barrière ñu waaj waajal ko fu war a jaaree nit ñu xam ko. ba nit ñi mën a jël image yi mën a génn rafet mm-hmm. lépp mën a jaar yoon mm-hmm. loolu waaj na ko baax a baax gasaale fii waxtaan tamit foofu day am ñaari xaaj bi fi nekk ñoo mm-hmm. la sax ñenn ay gan lan te gan gi ñëw ñoo ko yaa ko moomu ñëw wala boo dafa ñëw di xool si parce que dafa defee teew kooku war ko war ko dalal dal boo xam ne nii bu paree fa wit jëm du sonn ci buuxante yi man noonu waaj loolu ki ñëw ngir waxtaanu kese xam ne moom dogu si wut waxtaan la léeg-léeg moom ko am na daa wàcce woo jox dëgg la mu toog toogaay yu baax ki ñëw nag nga xam moom daa ñëw rek ngir nelaw si mmh. wala boog ngir bëgg eh, bëgg a toog dal rek mmh. ko tamit am la am koy noo ko wàññi ko tax ñetti loolu def ñetti ñetti ñetti groupe yoo foofu mmh. dafa ne nga xam ne nii moo si liggéey toogaay bi baax ba nit ñi mën a toog toogaay boo xam ne nii du am buuxante dana rafet ku ñëw tamit ku bëgg jàll da nga jàll ko bëgg jóg da nga jóg macha allah loolu waaj na ko mel noonu ni ki noonu ci doggukaay bi da ko waajal nga ko def ñetti xaaj benn xaaj mooy xaaj njëkk bi mooy yokk njëkk bi ñu waajal ko ci ay toogaay yu jaari yoon ay jumtukaay yu jaari yoon yoo xamante ne tamit ñëpp dana mën duggandoo dogandoo te bu ñuy génn du am buuxante buy dugg du am buuxante loolu waaj nañ ci ay formation ñu am solo noonu laa koy wax ci yokk yokk ñaareel bi ak ci croix bi ba ci sax yeneen pukk si des maanaam am na boo xam ne comme suñ suñ suñ waa fii nekk ñoom bi bi lu liggéey fa fay dogee mhm. fukki la fa ngay dogee ñu fekk la faak say say jumtukaay ba mat sëkk mhm. loolu nas nañ ko ci wàllu liggéey bi ni ki noonu su koor gi jeexee ñu xayma fukki fan yooyu mhm. ñu xayma liggéey bi fukki fan yooyu ñu xayma liggéey bi ñu xayma liggéey bi li ki ay rëq-rëq li war a yokk li war a wàññ ñu wax ko ñu waxtaan ci jébal kilifa ñu dogal ko waa yokk ko waa ñu wàññi ko loolu def ci koor gi ba koor gi jeex bu koor gi jeexee nag weeri feeñee nag ñu ñu ñu ñu leeral nag ñu wax bilan boo xam ne day leeral li mu def lépp ñu leeral ko ci këyit jébbal ko jëwriñ yi waajal ko rek nag mu waree ban buñ jullee pare mm-hmm. delloo bagaas yi mm-hmm. fam nekkoon mm-hmm. njëkk yi jàpp ab bis nag ñëw fóot lépp luy tàppi bu amul taas wala bu am ab taq-taq delloo ko ci palaasam ànd ak nag saa bu ñu dogee pare fan la yor ñu raxas ko set succ ndax boo ñëwee ne mel ne fii dana mu see xew macha allah loolu mooy li nga xam ne noonu lañ defee bu defee li ñuy xaar nag ci ñëw yi ñëw ci dogu si ndax xam nga ne jumaa ji ni mu ni mu mu yaatoo. Mm-hmm. booy ñëw war nga am noo melawoo. dëgg la ndax jumaa néew yàlla la. dëgg la te ñi jàng fekk fekk danaan am na noo noo ko war ñëwee. Mm-hmm. kon ñii ñëw ci jumaa ci tamit nañu waaj waajaay mm-hmm. euh, nga sol lu bees waaye nga sol loo xamante ni nuru jumaa ji daal. dana dëppoo ak jumaa te saa léegi tamit dal gi. ñu koy sàkku baax ki nit ñi dal gi. ay sàppe la rang la gis nga kanam kanam ba ginnaaw yam. li nekk ci kanam gi mu ne ci ginnaaw gi ndogul leen la ndogul leen la mhm. kon li ñu gën ne xañ na ay kilifa dafa ñëw ñu beral leen ab place ndax li ne kilifa te loolu am fépp mhm. waaye firiwul ne dañoo jox kay meew jox kafe la def fi kanam mu ne ci ginnaaw kon fu la dugal jàppal ne da nga fa war a nekk pour dogo mhm. lañ topp mooy ñu wàññ coow li coow li jumaa ji ñu wàññ bu baax a baax ak ñi koy ñi fay ñëw tamit ngir fu kese yenu ab bool taxaw di sinab ba xam ngay biir woo ci biir bi tam loolu yoo xam ne maa am ay sàrtam ci yu fi tax mooy te nekk bañ koo jaxase xam ne liggéey boo xam ne nii da koo jox ak cër bu sëkk dëgg la lañ topp mooy tam saa jeexal mooy ndegam ci sàpp yi duggee nañ toppante sàpp yi hmm. jigéen ñi am na ay barab bi jigéen jigéen bu ñëwee daw jigéen ndax barab bi fa jigéen doge bu dee góor dañ fa góor dafa la yem la fa nga allah moo tax liggéey bi mën a nosu mën a yoon hmm. bu ñu paree bala ngay bala ngay jeexal si maxtaar foofu euh, euh, bëggoon naa bala ngay sori euh, pare foofu dañ ma tuddoon léegi nii ndax daaw yaakaar naa bu ma juumut dama lan moo gën a manqué ci seen i bagage nga tuddoon ma ay kaas ak ay tarmoos ak qualité tarmoos te it gis naa ne it yaa ngi tudd rek waaye wax góor lu jëm ci wàllum naan daaw ba ma laajee laaxoon naal la mbirum laaju laajoon lu jëm ci wàllu bisaab beegee ci aju te gis naa ne moom it dafa laaj lu lu baree baree bare kafe gi it waxoon nga ma mi kilo kafe yi ngeen fi tàngal ak li ci demoon ci suukar kom comme day ay commission yi dégg naa ginnaaw wax nañ ma mburu mi ñeent fukki junni mburu yu tegal juróom benn junni quarante six mille deux cent yaakaar na quarante six mille deux cent boo ko boo ko boo ko multiplier par deux mburu mu ne ñaari xaaj quatre vingt douze mille quatre cent et quelque danañ fi ndogoo juróom ñeent fukki junniy nit yu tegal danañ fi ndogoo ci weer wi ndax mburu mu ne ñaari xaaj ñaari nga koy def kon yaakaar naa ne li ñuy li ñuy dogal tuutee ko manqué téeméeri junniy nit ci ci weer wi loolu liggéey bu am solo la ndax da da ngaa daloo calculer waaw dañoo kër li ñëw li dugg ci biir ci biir donkaay waaye li ma li ñuy jox ñi nag. waaye li ma ciy jublu mooy kii defe alalam mu xam ne ndakate dogal kenn nit man dogal naa téeméeri junni nit loolu dafa dafa doon lu lu lu lu lu kawe. ndax yow mi joxe benn ma ci biir koor gi jox ko mu xadamatul xel ma jàppale ju téeméeri junniy nit yëpp a nga ci tuyaaba waaw moo xam ñu joxe ko ci ku njëkk wala ñu joxe ko ci mujj gi waaye yaakaar léegi liggéey bu am solo bëggoon naa nga ñëwal ma ci détails yii bisaab bi. ndax it day am loo xam ne boo ko timmee boo ko waxee nii rek jam te néew ñi la fee la amee dañ naan loolu murid yi dañuy wax nii rek dëgg la dëgg la dinaa tudd yéen dinaa tudd leen li si laa gën koo lekk rapport bi waaw nii mu euh, tudd rek bu dee bisaab moom waaw daa mel ne suñ boroom saafara na ko ci ndogul jumaa ji moom mhm. ndax lu ëpp ñeenti at mhm. benn daayira bu ilham latif xabir loolu mhm. beral jumaa ji toolu bisaab di ko bayal di ko bayal tool nii ren indi juróom-ñaar fukki saako yi. ak bisaab ak ñaar ak ñaar waaw kon bisaab moom mel na ne mm, moom yàlla jàppale la ko ci. bokkut ak jinjeer déedéet bu dee suukar da nga génne quatre sacs lañ leen programme ren quatre sacs suukar. bis bu seen ñeenti saako. waaw mooy suukar bisaab bi kafe gi jinjeer ji. waaw ah, ñaari bërigo yu suukar daal. waaw par jour loolu bo boolu ma ci ajuma de. ah ma ci ajuma ndax aju moom beneen affaire la moom même mburu mi tamit. noonu la parce que boo xoolee mburu mi àjjuma li li li ñi fi ñëwaat loolu tam day fekk day fekk ñu bëgg a dog xam ne loo ko mën a loo ko mën a wàññiwee day bari lool. kon àjjuma jëyee ëpp fuuf. mu ëpp lool moo tax loolu tamit da nga koy sóoraale. lépp lu ñu defaat def rek. àjjuma day gën day gën a bari. kasaale hmm. ah, tamit léegi tamit nga am nga am nga am nga am beneen liggéey ci biir misaal mën ngaa dem ba dog ba pare ñu ne am na ñu doon denc kat ci barab ba ñaari oto lan ay 100 000 lan dañuy dogg si. daara yooyu. bële da gaar. léeg-léeg ñu ne tamit jàkk sàngam. ci yéen ñuy dénk. daa manqué nangam. waaye yéen a fa yóbbu lool. loolu yëpp da nga koy da nga koy waaj da nga koy waajal ak ñi nga xaar ay ay ay way dawlu di ku seen mbokk mu ñëwagul. nga mu jógee Thiès nga jógee Dakar jiitu yooyu yëpp yëpp da nga koy da nga koy. kon nag lépp luy doxandeem. da nga koy calculer ci biir waaw. rek bala ñu bala commencé teg ay point pour nit ñi commencé jox information yoo xam ne Bakhia lu fa des ci aw nit yu ne bëgg yu ne waxaar ñëwagul xaar ci aw nit yu ñëwagul ñu ne ko mën gaaw jox Bakhia lim soxla balaa boo jot morgue bi kasaalika ñu wax ko loolu la koy programme ba lépp xam ne bi dog di jeex dana xam ne ñun danañ doole nangam moo tax chaque jour bitse bi ci ñun lay ëppee <laughs> waaw ñun lay ëppee mm-hmm. bu dee kaas rek noonu nii xam nga doon jëm ci wàllu plastique dafa dafa xaw a jafe léegi mm-hmm. te bëgg nañu nit ku ne bu bu doog jotee nga tiim li nga war tiim. Mm-hmm. ndax fan yii yëpp ñu ngi ci wër ay kaas ak ay place ay ay mm-hmm. yoo xam ne day baax mm-hmm. mën a jël un litre et ko waajal nit ñi xam ne bu heure doog a jotee ñëpp ay dogandoo. ñaata litre ngeen di defar par jour. waaw xam naa dana jëfee xayma ci bis ñi parce que euh, boo xoolee ci bisaa ci café rek boo nee huit ramus café ramus bu ne quarante litres. huit thermos bu nekk quarante litres. waaw boo jëlee douze thermos yi bisaab bu nekk quarante litres yooyu de day bëri te bu boole ko ndox mi nag ndox ndox ndox ndoxu ndoxu ndox kii rek ndoxu ndox yi naan rek bitey rek da ngay génn ay trente six euh, pack da nga génn te bokkut ak ndoxam sachet yi nga xam ne dañuy dem bokk sa programme sa saison saison bokk programme bi. Ah, waaw du ngeen joxe sachet waaw bokk programme bi du tee nga génn cinquante sa teg fa ndaxte waaw. loolu mboola ndog la boo xam ne ni lu baree bari la ci ay wàll yëf des na ay wàllu ay kudd yi rek ay kudd yi ni yi ñuy jëfandikoo rek kaas ataay yeeg yooyu yëpp yi muy àndal ci ay bagages ay ay ay téeméer téeméer la loolu nag yooyu saa dogee pare donc da nga la waat suñu xëyee mooy ñi nga ay soxna mag mag daayira bi ñooy xëy si raxasaat lépp loolu kon li daayira bi li muy liggéey ci wàllu koor mm-hmm. am mbooloo koy def nas la boo xam tamit ñu ko nas tamit ñu ngi koy contrôle lu baax a baax nas la bu loolu bu ñu joxee rapport bi dana dana leewal li ñu jëfandikoo ci kilo gi ngeer mhm. dana la ko wax mhm. li ñu jëfandikoo ci ci mbur ni mburu mi sax ni nga nattee ñu ni nga nattee moom na nga natt ay kilomètres ay kilomètres lay doon boo ko woon waaw sept centimètres la ko nattee mhm. dañuy jox ay six cent nangam kilomètres ñoo natt ñun ñun bu dee bu dee ndox tamit ñu nattewuñ comme nattam dañoo woon tey ñaata seetal yoo xam ne am loolu noonu la nattuñu ndax ñu dañuy bëgg ñun li ñu jox da nga ko yàlla ko moom laa la waajal ñeent ki nit hmm. ñu ngi ko triplé ndax moo noonu ba ba ndogu jot sëñ bi am ay kër yu bëri ñu ne fii ndogu si hmm. kon bu manqué ñoom ñun lañuy wax hmm. tax kon bi liggéey ñun dana yan ndog la nga ko yàlla loo xam ne at àggu fa bu dee 40 millions la ñu ne ñun dañuy ñu danañ ci jël 30 millions wala 35 millions la ñuy xaar ñun ngir bëgg ku ñëw ci jumaa ji leneen léeg lu am solo xam boo tamit ñu koy bàyyi xel baax mooy nit ñi ñun togguñu waaye ñoo xam ne ñu ay ay bool ndeysaan wusilu lu def seen seen lu seen kër waaye ñun togguñu nag déedéet déedéet ñun togguñu mm-hmm. li fiy ñëw ci ay mel noonu bu nga bu ñëwee nga séddale dëgg la waaw mm-hmm. ñun togguñu mm-hmm. waaye ku fi ñëw nag ke fekk fi mel noonu da nga ko joxe rek macha allah waaye nekkul lu préparé na xam ne chaque jour daf fiy nekk loolu dañ daf ñoo xaw a sonal lool ci wàllu kii ci wàllu macha allah asalaamaaleykum jërëjëf Sidi Muxtaar Kan yaakaar naa ne wax nga ma ni waaye andiloo ma sax nanga mi bërigoy caaf yi ngeen war a saaf ndax ndax ak ah quatre-vingt-dix mille francs fa ngeen jënd ci caaf daaw ñaar fukki junni yu manqué ñaar ndax na lépp caaf la nga indi sogo indi nag fromage gruyère bi ak saucisson bi ak euh, beurre bi Carpentras nag ñu ngi xayma ci ñu ngi xaar 33 cartons Lanson ñu ngi koy xaar muy formation bu bo booy ànd ak mbir mi ñu ngi xaar cent 130 kilos yi Gruyère. 130 kilos waaw mhm. Gruyère. bi mhm. ànd ma ñu ngi xaar tamit caaf ñëw 90 bi lañ ciy xaar. Mhm. ah loolu lañ xaar. mburu mu mburu mu loolu la gisoon pour yokk moom. fromage kay gis na naa ko fi am. fromage simple bi. am na léegi ngi ciy xaar tool mu ngi ñu ngi génn bis bu ne. quatre cartons. carton bi lu muy def ñaata paquet la carton bi def euh, bi def bi def douze fois vingt quatre am na fi quarante quatre mais loolu tamit da ngay inclure meew mi. pot meew yi meew yi waaw meew mi gloria hmm. ak meew mi li fromage bi am na meew mi ak ñi dul lekk ñi dul lekk beurre dul lekk gruyère day lekk jël jëfandikoo fromage. waaw dañuy dañoo bëgg nit ku ne bu ñëwee la nga gis da bëgg ci dogu ndegam suñu saa lañ hmm. la nga soxla ci dogu nag nga fekk ko nanga ko bëggee rek. waaw moo tax même ndox mu tàng mi. Mhm. ñu koy préparé. ndox mu tàng kese rek waaye li nga xam te ne xam bu koor gi jeexee ñaata litre nga ko tàngal. Mhm. nga xamaa lépp ci mhm. ci rapport bi. ndax mooy tax bu déwénee nga mën jumtukaay yi ko mën def. macha allah waaw bokkut ak gato yi. bokkut ak yi. yëpp am ñoo xam ne dañuy seen gato yi boisson bi. presse ah, presse antonia nga da ngay am ay huit cartons par jour. carte de douze yooyu day bari di koy décorer décor bi rek dafay day day day xaas bare bari la waaw pomme ji orange ji ji gris loolu yëpp ñu dugg ci. macha allah daal ñu ngi daal. ma daal ni ma ko gisee daal mooy xam naa ne képp koo xam ne yor nga lu bakkane daal te dagan mën nga koo indi ci jumaa ji ndax moom noonu lañ koy noonu kana képp koo xam ne it yor nga bagage boo xam ne mën naa jëm ti ci yow xam ne googa mën nga ko participer ci jumaa ji jërëjëf sëñ Maxtaar Kan am na solo lool ñuy fàttali mbokk yi rek nag yéen a ngi ñuy toppe fii ci jumaa ju mag ji nekk ci Touba ngir waajal koor gi ànd ko daayira bu mag bi de Muxaddamatul Xidma ak site internet yi nga xam ne ñoo ngi koy def direct ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jaare ci nag ci MKTV ak euh, CMTV ñoom ñëpp ñu ànd liggéey bi euh, ànd ak sëñ Jili bu sax sëriñ Cheikh Diop kon euh, dafa mel ne li ñuy dese ci waxtu bariwut damay ñëw cinq minutes rek ci sëñ la Abdoulahad Maxtaar ñëwaat euh, trois minutes trois minutes ñoom ñi ci des su ko dee ñu mën a tëj jotaay bi comme social moom ci lu bari ci moom la gën a leere sëñ bi dafa mel ni am na ñu leen di jàppale nag bitim réew day mel ni nag comme ministère des affaires étrangères ma nga nee toog di sëñ Abdoulahat bu sa Thierno suñu waxee lii ba lépp nag ndax ñoom am nañ ci ay participation yuñ ciy def lu ànd koog yéen ci koor gi ak gàmmu gi ak màggal gi ak yeneen yi ci aju ak it buñ mënoon a xam euh, réew yañ nekk ak ña fa ne ba ñenn ci réew moom mooma ca dañuy topp ci site internet bi bu bëggee ma jokkoo mën a jox ko ak ñooña euh, jërëjëf sëriñ Fallou euh, ni nga ko waxee rek noonu la demee liggéey bi dafa nekk liggéey boo xam ne ñëpp ñoo ci jàpp mm-hmm. ngir xam nga ne wenn weer boo ci bëggee dajale daanaka lu mat juróom fukki million mm-hmm. séddalewaat ko ci dafa mel ne faawu ñu bari dañ ciy jàpp jàpp googu ñuy jàpp nag euh, danañ ci fàttaliku rek ñaar ci njëlbeen war a ñëw ci ñeneen ña cay topp ñaar ñi mooy cheikh Mouhamadul Moustapha moom cheikh Massamba waxoon naa ko ci bi may daaneel. mu doon koo xam ne liggéey bii mën nañoo wax ne moo ko sosoon ci ci ci ci moom li ci dërëmam njëkk a dem ci ndimbal loo xam ne dafa ñëw mu saxal ko at mu jot mu di ko def mu nekk ñaari ndimbal. leneen li nekk ndimbalul finance leneen li nekk ndimbalul jëmmam ju tedd joojee mu di ko déplacé di ñëw ci barab bii di jiite liggéey bi def koy at ba mu demee ba euh, mënatu ko ndax xataayu jamono ak magam mu yebaloon ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha mii tey nañu bu ngeen demee ne leen ko jébbal naa ko liggéey bi ne tànn comme tànn rek mu di ko muy dem di ko ubbi ji danaa ko boole ak sang njaboot ñu ànd ak moom waaye mu tànnale woon nag jëmm joo xam ne duñu ko fàtte mukk moom itam ci suñu wet ci taxawaay boo xam ne taxawoon na ko ci suñu wet itteel gu ko liggéey boobu itteeloon sonn gum ci nangu woon a sonn mu sëriñ Maam Mor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadil yal na yàlla dolli seen i leer yal yàlla dolli seen ngërëm yal na yàlla dolli seen yërmande waaye ñu amoon taxawaay lañu ci liggéey bi duñ leen mas a fàtte mukk waxtu wu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ci ay ñaan waaye waxtu wu nekk dem sunu xel mi ngi dem ci ñoom soññ gi nga xam ne moom lañ ñu daan soññi ci liggéey bi euh, ñooñu lay jiital ak yan ci bokk yi nga xam ne ñoo sosoon liggéey bi ci jàppalante bi ci taxawaay yu am solo mën nañ caa fàttaliku ku mel ni alxaaji Moustapha Gajaga ku amoon taxawaay la ci ñi nga xam ne ñoo amoon liggéey bii ngay laaj ci la bokk ak sëriñ Xaadim Lo nekkoon fii ci 28 ay commerçant ak sunu bokk yi nga xam ne ñoo bokk ci opérateur économique yi yëpp te génn àdduna ci diggante bi waaye itam kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo ñooy kilifa yi nag yu mag yi yi nga xam ne dañoo am taxawaay lool ci liggéey bi bala may ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci bitim réew naa tàmbale ci biir réew mi ñu tàmbale ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne euh, dem nañ fa barki démb ngir mu yeesalaat ndigal li ci turu daayirat Muxaddamatul Xidma mu yeesal ko taxaw ci taxawaay bu am solo bu bu toll ne ba mu ci euh, noonu mm, porte parole am bi nga xam ne mooy ndawam di Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil di ko ci am taxawaay Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne at mu jot moo ñu koy tëjal boole ay taxawaay yu am solo nag yu mu ci taxaw. ni ko noonu Serigne Amsatum Serigne Chouaïbou Serigne Sidi Mbacke Serigne Abdoul Khadir. Euh, sëriñ am satum sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abdou Samad moom seriñ Chouaïbou sëriñ Basir Xaadim Awba sëriñ Cheikh Ummi moom Cheikh Mamadul Fadil soxna May Asiyatu moom Cheikh Abdul Xaadir soxna Balim soxna soxna Gàdd soxna Balim sëriñ Muntaxa ñii ñëpp dañoo am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne dañ koy taxaw ci liggéey bi naka noonu itam sëriñ Abdul moom sëriñ Abdul Xaadir ñooñu ay kilifa lañ yoo xam ne bu ñuy tudd ñi nga xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi. te di ci sonn waxtu wu nekk mënee su leen ñàkk a tudd wa mu am ay jëwrin nag yu am solo ci liggéey bi yu nekk yu koy taxaw ku ku demee ni Serigne Moussa Mbaye ci marché Ocass ak sëriñ Bara Diop ak daayira Miftaaxul Xuyóor bi nga xam ne moo lëkkale boulangerie yi nga xam ne ñoo nekk Touba Alaaji Fàllu Galas Xumma ci ndaw yi nga xam ne ñooy opérateur économique yi ak Serigne Abdoul Karim Ndiaye ak ñii ñu àndal jëpp ñooñu itam mu ne su leen fàtte ndax taxaw nañ ci taxawaay bu am solo budget bii ñuy wax daanaka mën nañoo wax ne xaaj bi ñii ñoo ko ñoo ko toppatoo andi ko fi ci liggéey bi te bañ ko tàmbalee ba léegi waxtu wu nekk ñu ngi ko ànd ak ñoom mu nekk lu am solo moo am it nag ñu nekk bitim réew ñoo xam ne ñoom it dañ cee day am solo lool foofu mu ne su cee ñàkk a tudd lu mel ne fondation Muqaddamatul Xidma bi nga xam ne euh, moo nekk Amérique euh, moom itam. Euh, nekk na fondation boo xam ne waxtu wu ñuy waajal koor gi rek tàmbali nañ seen liggéey ñoom ci baraxal we la ñuy jiital seenub liggéey mu tàmbalee ñëw bala ñuy egg ci euh, njëlbeenu koor gi lañ war a andi lépp danañ ko andi ci ay taxawaay te taxawaay bu am solo boobu ñu am ci koor gi kat moom lañ am ci màggal gi moom lañ am ci gàmmu gi ñooñu kon mu ne si leen a ñàkk beral ak cant te di leen soññiwaat itam ci liggéey bi euh, niki noonu itam kilifa yi ñu doon tudd léegi sëriñ mi ngi koy fàttali waxoon naa ko sax ci njëlbeen gi muy sëriñ Moustapha Xasida monsieur Abdoulahi borom dër euh, waaye ma continué ci ñi nekk bitim réew sëriñ Xasan Diop mi nga xam ne moo coordonné euh, wàllu international bi mm, ak sëriñ Saliou si Hikmatul Yawmi ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci seqal lépp foofu danañ ci ràññee taxawaayu waa Espagne fédération Espagne bi nga xam ne sëriñ Mbacke njaay moo ko jiite. sëriñ Baye Daam loo moom Cheikh Moustapha Al Karim mi nga xam ne moo coordonné liggéey bi eh, te di ci liggéey liggéey bu am solo nag ci Espagne di soññi daayira yëpp waxtu wu nekk mi ngi ci sonn di ko jox temps di ko jox yitteem di ci liggéey liggéey bu am solo nag ci ko wàllu coordination mu ne su koo ñàkk sa beral ak cantam bu baax a baax a baax waa Argentine sëriñ Talla Sall eh, Baye Seer Diop Angleterre sëriñ Fallou Diop Abdoulaye Dieng Fawzeyni Brostol Ndiogu Je Ndiogu Dieng euh, Daaru Touré sëriñ Ibrahima Ndiaye Xasida Belgique sëriñ Abbas Guèye Hollande sëriñ Xaadim euh, Nger Mbegere ak euh, Baye Ousmane Ousmane Baye Fall France sëriñ Bamba ak sëriñ Modou Kara Samb Turquie sëriñ Amdi Portugal Serigne Mbaye Sow ak Serigne Abdou Sey Allemagne Serigne Saliou Gueye euh, bu dee ci Afrique it sëriñ ma Mafari Ndiaye mi nga xam ne mooy coordinateur coordinateur général wu Afrique bi ñi ngi koy soññiwaat di ko ñaan ci ma soññ itam ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi yëpp fa deme ne ki Mali sëriñ Mame Balla Mbacké ak Serigne Mame Balla Gueye ak Serigne Mame Gordia fu mel ni Côte d'Ivoire sëriñ Makumba Thiam muy président daayira ba ak sëriñ Touba loo sëriñ Sadiq Kane sëriñ Moustapha Fall ak ñeen caxal liggéey bi yëpp fu mel ne Togo Lomo Lomé sëriñ Mamour Dramé Nigéria sëriñ Wagan Faye Gabon sëriñ Bada Sène ak Cheikh sëriñ Cheikh Mbeng Baye Fall ak sëriñ Moussa Dramé Ghana sëriñ Mor Gueye Burkina Faso sëriñ Bamba Seck euh, Scotland Scotland Faam ak sëñ Yaxooba ak ñooñu àndal liggéey ba yëpp suwet sëriñ Njaw Baay Fall Danemark sëriñ Thierno Fall ak sëriñ Gora Faye ak waa fédération Veneto te sëriñ Masayar Diané jiite ko ak it nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu ñu seqal liggéey bi yëpp ci euh, fu mel ne Mali sëriñ Mbaye Thiam France itam sëriñ Bousso Bousso imam ak sëriñ Amdi Moussa Mbacke ak sëriñ Ahmad Bousso imam ak euh, Serigne Pape Ndaw Toulouse ak Serigne Cheikh Diouf ak sëriñ Seri Diop ñi ñëpp ay coordonnateur lañ yoo xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi di coordonner liggéey bi am na it ay euh, bokk yu nekk ci Dakar fu mel ne Dakar te bokk ci euh, taxawaayu daayira bi ku mel ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Serigne Cheikh Mbacke nekk Dakar di nga xam ne daanaka lay coordination bu moo ko yor mook Serigne Modou Khayra moom El Hadj Mamadou Mahmoud Niang ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp ci Ndakaaru ak ak fondation Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moo nekk Amérique tuddoon naa ko moom laa tàmbalee woon te ñoom itam waxoon ni ma ko waxee woon léegi nga xam ne waxtu wu nekk ñoom balaa liggéey bee tàmbali rek ñoom tàmbali nañ seen liggéey fii may wax ak seen li li një seen virement bi njëkk yónnee nañ ko. te du ca dañuy continuer di di ànd ak ñun ba ba koor gi jeex. ñooñu itam teg tey seen mbir dañ koo nos nosin boo xam ne yëf yi dafa yomb lool ndax euh, ma rek lañuy def muy ñëw ci biir loolu nag kon ñoo ngi soññi mboolem mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo barkeelu ci liggéey bi mm-hmm. ñu xam ne euh, liggéey bi liggéey bi ñëpp mm-hmm. waaye bëgg a jóge itam te bëgg cee participer participation bi yomb na lool mm-hmm. bu ko jaaralee ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaarale xaalis yëpp boo ci nekk mën naa agsi su ko indilee boppam ba ci jumaa ji itam mën naa aksi am na ay numéro yoo xam ne boo ci dugalee euh, lu mel ne Orange Money am na ko mi ngi nekk 77 696 86 17 am na it Wave. waat ko. 77 696 86 17. loolu mooy Orange Money bi. am na Orange Money am na Wave. am na itam compte euh, ci société générale euh, boo xam ne bu fekkente ne da ngay bëgg a dugal ci national bi da ngay def SN 011 cinquante 062 01 4000 51 32 27 36. bu fekkee international la da ngay def SN 08 SN 11 17 062 01 4000 51 32 27 36 loolu mooy bi nga xam ne mooy international bi am na itam. Euh, compte ci euh, yeneen beneen yeneen yeneen i banque lu demee ne ki euh, banque agricole ak yeneen waaye yooyu yëpp itam bu soobee yàlla danañu publier seen i numéro compte ba képp ku ci bëgg a jaarale man ko cee jaarale incha allahu taala numéro téléphone yi nga xam ne ku bëgg a woote téléphone da nga yi nga xam ne ku bëgg a woote mën nga mën nga cee woote. Euh, bokk na ci numéro secrétaire administratif bi di Serigne Abdou Lahad Bousso Afia nekk na 77 434 33 15 wala Serigne Abdou Lahad Bousso Abdoul Moutalib mi nga xam ne mooy secrétaire général bi di 77 209 77 32 yi numéro daal képp koo xam ne am na loo ci bëgg a barkeeloo boo ci wootee wala nga du dugal ci yeneen yi ci des bu fekkente ni yaa ngi Europe nag nga jokkoo ak. sëriñ Hassan Diop mi nga xam ne moom itam moo coordonné liggéey bi foofu euh, boo ko wooyee moom itam ci numéro rek incha allahu da nga ko dal di jot numéro am mooy euh, double zéro 34 632 58 19 98 double zéro 34 632 58. 19 98. am na WhatsApp. am na WhatsApp am am wala ñoom itam euh, boo ko ci wooyee ci WhatsApp am da nga ko jot incha allahu taala kon daal liggéey bi mi ngi nii di lépp ñëpp kenn ñu ubbi ko itam. bu dee bu dee sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo coordonné bitim réew. numéro téléphone am. waaw moom it sëñ Abdou Lahad Bousso. réew yi bokkagul te bëgg a bokk. waaw réew yi bëgg a bokkagul te bëgg a bokk sëñ Abdou Lahad Bousso mi ne lu bari moom la daayira bi di yëpp faral di yebal ci bitim réew.

08 80. macha allah kon daal bunt baa ngi noonu ñu ubbi ko ngir ñëpp fas yéene yéene ñëpp itam xéewal gi ci nekk. te fas ko yéene bokk ak ñëpp tey ñaan sunu borom itam ubbi xolum ñëpp yaatal seen dënn euh, xiir leen ci jëf jubaax baax ji nga xam ne seen njariñul àdduna lay doon di seen njariñul alaxira te mu doon loo xam ne barab bi la ci Sëriñ Tuubaa njëkkoon a wax rek doy na sëkk mooy ko ci feeñ feeñ ba faw ko ci nëbbu itam. yàlla nañ ci yàlla musal dootul feeñ yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ ciy feeñ te jëf ci jëf joo xam ne ju ñuy nangu lay doon ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ Fallou. jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad Bousso Makhtar wax ji leer na am na solo lool te yaakaar naa ne jaamu yàlla gu gën yaatu gi yombut ci àdduna bi bu fekkente ni bii fanweeri fan la. bis bu yàlla sàkk ñu dogal ñeenti junniy nit boo ko calculer fukki fan yu nekk dana mat ñeent fukki junni nit ñeent fukki junni ñeent ñetti yoon dana jege téeméeri junniy nit ak ñaar fukki junni nit loolu nag koo xam ne wax nañ ne tuyaaba jooja am nga ko ci weeru koor te sun borom subhanahu wa taala soññi Moustapha na ko waxal jullit yi leen ku woor ba ngoon nga dogal ko doonte benn doomu tàndarma la am nga tuyaabay kooram ak sa joj nga am nag tuyaabay téeméeri junni nit ak ñaar fukki junni nit yaakaar naa ne jooju tuyaaba fu mu yam amul ndax ñu xam tuyaabay koor na mag day mag muy nettali nee na dafa ñëw ci sëñ Abdou Xaadir fekk ñu màggal Tuubaa ba noppi mu ne ko sama wàll ci màggal gi lay jël si sëñ Abdou Xaadir ne ko màggal gi aw yiw te wàll wi ëllëg lañ koy seddale waaw wàll wi ci màggal gi lépp aw yiw te ëllëg lañ koy séddale yaakaar naa nag ku ñu dencal yiw wu toll ne nga dogal téeméeri junniy nit ak ñaar fukki junniy nit yu woor te xamoo leen ñu dencal la yiw ba ëllëg su boobaa mën naa am ndax dootoo fa gis jafe-jafe ndax lu fa fekkoon ci ay tilim tilim mën na koo raxas kon sëñ Abdul Xaadir yéen kàddu ngay tënk ngir tàggatoo ko ak mbooloo mi ci tomb yi desoon ci yiñ la doon laaj ci wàllu euh, conférence bi ngi ci aju ok jërëjëf sëriñ Fallou xam naa fi may tënkee rek incha allah mooy ay e, ay ruqooqaan yoo xam ne ma ko fàtte woon ci waxtaan yi mm-hmm. muy seen taxawaay rek yëmu ci tànn e, tomb yi nga xam ne moom laa fi lim léegi mm-hmm. ak xool ñi koy taxawee mm-hmm. waaye bokk na ci it e, former ay sous commission yoo xam ne moo aju ci commission culturelle bi bokk na ca commission scientifique loo xam ne commission boo xam ne mooy yëngu ci wàllu lu jëm ci wàllu xam-xam ci biir ci biir euh, commission bu mag bi te mooy hmm. euh, culturel bi hmm. commission boobu daanaka liggéeyam mu ngi aju rek ci taxawu lu jëm ci wàllu formation yi nga xam ne daayir bi da koy taxawe hmm. waaye nag teg ko ci loxo yi lañ na saxaaf yo te mooy commission culturelle euh, muy ay formation yu am solo yoo xam ne ñu koy tuddee ay takwinaat dafay jëm ci ay fànn yu bari nag hmm. waaye bokk na ci fànn yi ñu wëyalagul hmm. fi mu ne nii fii may waxee yow ñaari fànn la hmm. muy former euh, ay noddukat ak jiitekat ay imaam former gi nag liñ ñu ci jublu rek mooy fàttalante dëgg la jotaayu ndaje boo xam ne dañ ci toog fàttalante ci ay buntu ak ci ay gendiku yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko bu ñu bu ñu ko bàyyee xel liggéey bi dana gën a ñëw dana gën a rafet loolu amaloon nañ ko fi ci at yi weesu ndaje mu am solo moo xam ne dajale woon na imaam yu bari ak i noddukat ak ñoo xam ne dañ yëngu ci jumaa waaye daaw it amalaat nañ ko benn ci koor gi muy alxamis ji njëkkoon ci koor gi ja a topp xëy na du sori ca fukki fan ak juróom ya wala fukki fan ak ñeent ya mu dajale woon ay imaam yu bari ak i noddukat yu bari ak ñuy yëngu ci jàkka mm. seenu lim xawoon naa jege euh, ñaar téeméeri nit ñu rafetlu woon ko lool. Mm-hmm. muy eh, formation boo xam ne Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud moo ko taxawee woon. Mm-hmm. ak sëriñ Mbacké Abdoul Rahman mm-hmm. ak Serigne Afia Bousso imam bi nga xam ne moo nekk fii ci jumaa ji ba noppi jiite daayira bi. bañ ca jugee yit bañ ca eh, toftalee ay weer dajalewaat nañ eh, mbooloo moomu waaye nag na ci fukki jumaa yoo xam ne ñëwaatu nañ fii ci biir jumaa ji. ñu formé leen. fexe woon nañ ba formation boobu it suñu jili mi nga xam ne su Abdou Khadir mi nga xam ne moo yoro lu jëm ci wàllu communication mm. tusaare woon na ko euh, amoon na it euh, jëmmi euh, li nga xam ne moom la ñu waxtaane woon mm. ba képp koo xam ne bëgg na ko bu ñëwee bu ca jamono yooyu dana ko dana ko jox bam ba mën ko def ak yóbbal mm. amoon na effet bu baree bari it ndax gannaaw bi ñu baree bari woon nañu dañuy am dañuy envoyé seen i di ñu wax seen jafe-jafe yi ñu am ci jumaa ak di ñu laaj ay at yu ay ci wàllu boobu ñu leen ci tontu ci euh, nu mu nu nu mu gën a jàppandee rek. macha allah moo xam dañ koy jaar ci gàgganti bu moo xam dañ koy jaare ci xëy na bu fekkente ni ñu ñu laaj am na ci luñ ci teewlu. Hmm. formation yooyu bokk na ci ganeen wàll gi mooy former euh, lu jëm ci wàllu membre yi daayira bi kon li Serigne Muxtaar doon wax léegi ci wàllu comportement yeeg yenn teggi ñi nga xam ne war nañ ko gën a mën a bàyyi xel comme ak jullit boo xam ne da ngay xëy ci jumaa waaye da xëy ci Eh, barab boo xam ne danga jàpp ne mooy barab bi gën a seen sell ndax jumaa la eh, loolu rek dafa am waromay boppam dëkk bi mu nekk dafa am waromay boppam waaye suñu yaakaar ji fi ji fi ji fi ji fi ji fi ji fi nekk it loolu dafa am jeneen waromay boppam kon képp koo xam ne dafay ñëw di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal toolu lislaam di ko jaaree ci jumaa ji dana yell dana jaadu nga am ay jukko ak melokaan yoo xam ne da nga koy làmboo yooyu dañ koy ànd ak waa euh, waa communication buñ ko soxlaa hmm. di ko ànd ak waa organisation buñ ko soxlaa di ko ànd waa social bu ñu ko soxlaa hmm. képp ku soxla ñu euh, ñu ci commission yi nekk ci daayira bi ñu formel la say membre hmm. lañ na saxaafiya muy commission culturelle moom mooy taxawe wàllu googu muy loo xam ne bëgg nañ koo def defoon nañ ko ci koor gi jàll def nañ ko ci gannaaw koor gi def nañ ko euh, góor yàlla yi nekk ci daayira bi waaye def nañ ko soxna yi mhm. waaye bëgg nañ koo def avant gi incha allah macha allah bëgg nañ koo defaat ci biir koor gi ànd kook euh, commission communi euh, organisation mhm. bokk na ci waaw bokk na ci taxawaay yi tamit jëmmi muxaadara yi ñu tànn muy mhm. muy muy tomb yi ñu tànn bëgg koo waxtaane yëmuñ rek ci tànn gi comme ni ma ko waxee woon léegi waaye dañ koy coordonné Mm. dañ koy coordonné bu ñu ko joxee waxtaankat bi mm. danañ ko ko danañ ko ko danañ ko ko leeral mm. wax ko tomb bi lan bañ jubluwaay lañ ci am mm-hmm. lan moo tax ñu tànn ko ak lan la ñuy xaar ci moom mm-hmm. bu noppee danañ ko topp danañ ko jox ay orientation mm-hmm. ay ay taw jihaat ndax orientation yi moo koy dimbale di ñu dimbale ba liggéey bi dana am ni ñu ko soxlaa kenn duñ ci jam macha allah bokk na ci taxawaayu lañ saxaaf yi tamit mooy ci biir koor gi it dana am ay saytu yu am solo yu yu muy taxawee ci liggéey bi bokk na ci mooy dana former ab commission boo xam ne hmm. ci wàllu ubbee gi rek moom ci lay yëng ci wàllu fatwaay hmm. danañ joxe ay numéro yoo xam ne képp ku bëgg a laaj ca nga koy jaare hmm. danañ teg ay ndaw yoo xam ne ci jumaa ji lañuy ñuy xëy si suba ba ba guddi nga xam ne képp ku am salaay teg boo ñëwee ñoom ñoom nga koy wax ak làkk boo leen ko mën a waxee ñoom danañ ko danañ ko bind en arabe daa koy bu ko defee lépp bu dajee ñu teel koo yónnee ki nga xam ne moo ko war a tontu. Hmm. bu ko defee it moom mu mën cee jël temps man hmm. mën cee tontu tontu bu bu bu ba gën a yell ba gën a rafet. bokk na ci it euh, seen taxawaay ci biir koor gi. Hmm. mooy wut commission boo xam ne dafay contrôler. dafay contrôler liggéey bi. dafay contrôler waxtaan yi fiy jaar. ndax euh, objectif yañ taxawaloon jubluwaay yañ taxawaloon bokk na ak ni ñu koy defee wala déet. commission boobu dañ cee jiital sëriñ Afia bu sa imam mi nga xam ne gis nañ ne wala boog képp ku ñëw ci jumaa ji seetlu nga ne waxtaan yi bu tàmbalee mhm. dafay toog ba mu jeex mhm. moom seetlu bu mu ci am dañu koy wax mhm. waaye dañ ci lëkkaloog yenn kilifa yi nekk ci dëkk bi nga xam ne ñoom ñoom seen seen kàddu moo ñu fi moo ñu fi teg bu defee ñoom it seetlu bu ñu am ci waxtaan yi ak képp ku mu mën a doon ñu ñu koy àgg waaye danañ ko wax yenn wax yenn borom xam-xam yi nga xam ne joxuñu leen ay thème dañ leen faral di di di wax ñuy bàyyi xel ci waxtaan yi bu ko defee ñoom it seetlu buñ ci am rek wax ñu ko danañ joxe ay numéro yoo xam ne it léeg-léeg nga gis benn murit bu baax woo la ne la diw sàngamkat wala waxtaan sàngamkat seetlu naa ci nangam ak nangam bu ko defee yow nga noté bu ñuy réunion wala ñuy def évaluation bu ko defee daal ci bàyyi xel macha allah euh, kon daal xëy na euh, baneen liggéey it bu am solo boo xam ne dañuy gaar ci biir koor bi lu baree bari hmm. muy muy muy muy mu daa xalaat yi am comme ni nga def nii tey ñëw daja dajale mbokk yi laaj leen ñu tontu la mm-hmm. daf ñuy gaar ci biir ci biir koor gi da ngay mm-hmm. jékki-jékki rek ñu woo la mm-hmm. ne la am na koo xam ne dafa bëgg xam programme jumaa ji ak rawatina waxtaan yi nan lay tëddee boo defee bu ñëwee da ndékki da ndékki micro nga wax ko euh, thème yi ni demee nan lañ koy tànnee ak it niñ koy saytoo euh, waxtaan yi bu noppee danañ ci lëkkaloog siñ jili ba képp ku ko soxla danañ la ko mën a jox rawatina ñaari at yi nga xam ne ñu ngi koy jaarale ci telegram bi mm. di ko jaarale ci ci ci réseaux sociaux yi am nañ ay ndaw yoo xam ne yu jàmbaar lañ nekk fii ba Europe di ay di jàng mm. nekk ci yeneen réew mm. danañ lëkkaloog ñoom di leen di leen di leen di leen soññ ci ñu diglu waxtaan yi ñoom it di ñu jox seenu seetlu liggéey bu am it boo xam ne lañ na saxaafee muy commission culturelle bi moo ko war moo ko war a taxawee ñoom ñoo koy taxawee kon daal ay ndaw lañ yoo xam ne ci njiital Serigne Abdou laxaat euh, ñoom koor gi yëpp dañu am dañu am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne dañuy xëy si suba ba guddi ngir ngir taxawaay yooyu mm-hmm. waaye bi ci ëpp solo nag euh, gën cee fés mm-hmm. ci at yi mooy waxtaan yii ñu yi ñu yi ñu waajal jox ko jox ko ay borom xam-xam yu mag mm-hmm. dañu fexe nag ba duñ ko wax rek mu yem ci kàddu waaye ñu koy yaxal buñ ko yaxalee ñu fexe ba génne ko macha allah loolu defoon nañ ko fi 2018 génne woon nañu ab téere boo xam ne dajale woon nañ ci ay waxtaan ci fànn yii mu amee yenn yi ay bind la woon yenn yi ay tem la woon yenn yi ay fatawaa ay ubbee la woon mm-hmm. dajale woon nañ ko am na ci yoo xam ne waxtaankat yi ci jëmmam ñoo ko bindoon ñoo ko mm-hmm. yaxaloon mm-hmm. am na ci yoo xam ne membre yi commission bi ñoo dem diglu ji ko diglu ko muy wax ñu koy traduire en arabe ñu dajale lépp génne ko téere boobu gaaraloon nañ ko fii ci 2018 gannaaw booba it ba tey ñi ngi liggéeyaat beneen téere boo xam ne am nañ yaakaar ne incha allah Euh, bind nañ ko ba noppi dajale nañ ko def nañ ci liñ ci war def lépp topp nañ ko fi ne nii ma ci moolkat ba jàpp nañ ne fii ak fan yu néew danañ ko mool bu ko defee it moom it danañ ko gaaral ci koor gii di ñëw incha allah koor 2022 gi bu ko defee ko gaaralee danañ wax kenn ku ci ne boo ko bëggee nag ngay def ba am ko mm-hmm. la ñu daloon ci bu njëkk bi it muy lim bu néew ba ba nga xam ne xëy na boobaak léegi ñëpp a koy laaj mm-hmm. kenn kenn nit ñi sax dañuy dem bala ciy mere fekk xëy na la ko warloon mooy Euh, génne bu njëkk moo demee noonu génne bu njëkk moom daanaka da ngay essayer rek da ngay xool rek booba 500 euh, copie lañ ci génne woon ren nag incha allah danañ ci génne copie yu baree baree bari lim bu baree bare bari boo xam ne yaakaar naa ne ku ci bëgg rek da ci am macha allah muy téere boo xam ne dana am ay ay ay bind yu am solo yoo yu aju ci wàllu fiqh yu aju ci wàllu tasawuf yu aju ci wàllu yoonu murid gi yu aju ci ay ubbee nga xam ne dana soxal bépp imam mm. dana soxal bépp jàngkat mm. dana soxal bépp borom xam Mm. dana soxal képp kuy sàkku xam-xam dana soxal sax képp ku bëgg lu baax macha allah téere la boo xam ne incha allah danañ ko fi gaaral moom it mm. euh, wax nim ni mu composé woon nuñ ko liggéeyee mm. waaye ku ko soxla fan nga koy fekk incha allah kon daal yaakaar naa lii bu ma fàttewul dara man na maa tënk mooy liggéey loj na saxaafiya ci biir koor gi jërëjëf jërëjëf Cheikh xam naa nag euh, téere bu njëkk bu moom bu fi day bi nekkee muulaat gi wéy ndax it nag euh, waxtaan yi am na ñu defoon ca waxtaan yee te waxtaanatuñ te loolu daa mat di bàyyi xel archive dafa mat a bàyyi xel te yitam tomb yu njëkk yi da ngeen di yaakaar ne jamono weesu na ko te am na ci ñoo xam ne ci yooyu la ñuy sogo ni la ñuy sogo toll ndax fi mu toll tembe boo mokkalee alxuraan dem ba nga xamante ni bi yaa ngi bëgg a màggatit am na koy sogo dal baa koo xam ne moom baaji da koy arrangé moo tax téere boobu moom jar na daje waat nag jéem a indiwaat bu njëkk ba waaw euh, dolliwaat ko ci boobu ñaareel bi ndax ka demoon ba di la mere ca bu njëkk ba boo ko wanee boobu ñaareel bi teewut la mu bëggoon ca bu njëkk ba raw na ko ba noppi te mënu koo ñàkk a jotaat kon yaakaar naa ne des na liggéey bu yaatoo yaatu e, surtout nag e, fii ngeen toll nga xamante ne bii e, bu ma doon wax ne daayira yi dama naan bii mooy bii mooy nday daayira yi wala mooy xolub daayira yi ndax moo moo ne ci jumaa ji nekkal fi daayira yëpp ba noppi nag ubbeeku lëkkale daayira yëpp téye leen ci boppam kon liggéey bu am solo la euh, damay ñëwaat communication communication man ndax euh, xam naa euh, ñu baal ma ci laaj bi waaye du mën a ñàkk ndax thème yu amee nii solo ak waajtaay wu tool nii te communication mi ngi xaar kat amul benn capital bu mu denc boo xam bu bëggee jënd télévision mën na ko caa jënd bu bëggee jënd ab lumière sax mën na ko caa mën na ko caa jënd moom ci waqfu lillaahi ji rek ci lay wéy ndax lu mel nii jaaduwutoon nag doonte sàkkuwuñ ko it ku ko bëggoon a sponsoré nga xam ne danaan damaa bëgg a sponsoré ji koor gi ngir jàppalee ko daayira muxaddamatul xidma ndax loolu it nag eh, yéen a ngi koy bàyyi xel wala ku ko bëggoon a defoo lu demee ndax it am na koo xamante ne bii tey jii moom kat mën na ne naa dem sponsoré ji et kon may dem di sponsoré ji leneen ngir waaye naa dem sponsor ji daayira Muxaddamatul Xidma sama 2 millions wala sama 1 million bi ma nar a def sponsor naa ko def ci jumaa ji def ko ci K eh, MKTV ngir mën leen koo jàppale ba ba ba koor gi liñ ci bëgg a def ñu mën ko cee def ndax loolu yéen a koy bàyyi xel euh, jërëjëf euh, El Hadj Fallou ci laaj bu am solo bi nga xam ne <coughs> laaj nga ko waaye xam nga jumaa ji Euh, xañ na tàmbaleegul sax def def def lu mel noonu. Mm-hmm. waaye lépp loo xam ne soxla na ko rek ci muritu sëñ Bàmba yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy fexe mu am. Mm-hmm. maa ngi maa ngi lay tuddee léegi sëñ Baara. waaw dëgg la. Euh, bi bi bi koor gi jublu si nii rek. Mm-hmm. indi leen fi lu mat juróomi kamara rëboo yoo xam ne. Euh, côté yu bari ci jumaa ji da nga da nga mën a àngali pour mën a am nit ñi mën koo seetaan ci anam gu gën a rafet. macha allah ku mën na sëñ Cheikh Awa Balla moom sëñ. Fallu moom sëñ Fallu. Hmm. Euh, xam nga sëñ Matar léegi mi ngi wax ne euh, bisaab bi moom ma mat na. Hmm. kopp yi tamit mat na. Hmm. kon ku ku gaawul rek kon kon booy boo gars yi gaa gaawantu fi ne. dëgg la dëgg la dëgg la mun gaawantu wut. boo yeexee danañ danañ bëgg ñëw indi seen dërëm fekk fekk fekk. capacité yi mat na. capacité yi ñaata lañ ci soxla woon. téeméeri junni. waaw téeméeri junni capacité ngeen soxla woon. waaw am am. waaw yoo xam dana ma kon am na ñaar téeméeri junniy kopp acité ak ah. ñaar fukki junni ak juróom mi ngoog kon ku ku ku yeex boo yeexee kon kon ginnaaw weeru weeru njëkkalante la ku ku ku yeex boo yeexee mhm. da nga da nga bëgg indi sa dërëm bëgg foo ko def mu xaw a kii mhm. tàndarma ji tamit doy na léegi ñu ngi wax ne sëñ sëñ sëñ Abdou Samad moom sëriñ Sohaybu mhm. mottali na mottali na tàndarma ji kon kon ku ku xef ku xef kon kon kon bay boo gaa yi ah. gaa yi gaaw kon <laughs> trois paquets tàndarma par jour. waaw paquet bi ñaata kilo lay def. waaw euh, bu bu bu kon kuy. trente kilos tàndarma par jour. Mhm. kon ku ku yeex boo yeexee da nga fekk gars yi jëf jëf yi ji bu yàgg kon na na ci aw yiw waaye weeru tamit njéggal la kon na nit ñi gaaw def def ci seen seen lu baax ndax ñu mën a am njéggal googu waaye def ci seen lu baax mhm. ndax euh, rawante ci ci lu baax mhm. Euh, ñu ñu ñu mën cee ñu mën ñu mën a am am li nga xam ne mooy yiw yi nga xam moom la yàlla di dégg digle ci kii kon tamit kon sëñ suñ Fallu kon li ma wax léegi ne euh, jumaa ji moom tàmbaleegut def def def yooyu ci ci biir jumaa ji ndax xam nga jumaa moom dañ fi ay jaay ak jënd te tey tey yooyu moom day xaw a waaw ndax hmm. euh, ci itam ci itam la yeeg conférence yee yi demee noonu gis naa ne écran hmm. ay écran baax na woon muy am ci biti mhm. nga xam ne bu dee ak it euh, lu mel ne caméra surveillance yi loolu lépp dafa jëm ci wàllu communication nag mhm. waaw rawatina nag écran géant nga xamante ne bii euh, conférence bi lépp da ngay bëgg a concentré wu ci jumaa ji mhm. gis nañ ne gàmm noonu lay mel gis nañ ne magalu Tuubaa noonu lay mel ndax man amoon ay ponkali caméra yoo xamante ni day nekk ci li wër jumaa ji nga xamante ni fu waay mën a toll di seen jumaa ji di seen naafile gi di seen conférence yi waaw loolu tamit moom ñu ngi koy ñu ngi koy bëgg bu baax a baax ndax ginnaaw euh, waxtu naafile yi wala waxtu yi waxtaan yi nit ñi fenn fu ci côté bu ne la ñuy nekk. Mm-hmm. ginnaaw ci côté bu ne la nekk nag. kon àngal bu ne soxla nañ fa ay caméra yu mag yooyu kii euh, écran yu mag yooyu nga xam ne. Mm-hmm. Euh, foo toll ci jumaa ji da mën a xam li xew ci biir jumaa ji. Mm-hmm. kon loolu lu ci am sololo bu dee caméra surveillance moom. ñoo ngi ci ñoo ngi ci euh, jaajëfal sëriñ Ablaye ja moom tamit def na ci liggéey bu am am solo ci Camara Sirwaye si xam na jumaa ji ruq boo nekk daanaka ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay bàyyi xel euh, bu Sénégal moom tamit def na liggéey bu am bu Sénégal ak bu Darou Salaam kon <laughs> loolu lu am solo la. Uh-huh. def na ci liggéey bu am solo ndax manqué woon na ci jumaa ji jumaa ji it woon na ko lool. Uh-huh. ñu ngi ciy jaajëfal tamit sëriñ uh, sëriñ Bass Khadim Awa Ba ci taxawaayam ci la ci la ci la loolu amee. Uh-huh. kon ñu ngi koy sant bu baax a baax. Uh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw ni ñu ko waxee léegi waxtaan yi. kon ñu xam ne dana fis lool incha allah uh, communication dana ko fésal dana ko wane dana wane tamit dog yi nga xam ne moom la organisation yi di def dana dana fésal tamit euh, li nga xam ne moom la euh, social di di di di def fexe ba nit ñi mën a indi seen i xéewal wala fexe tamit ba ba ba bay jàppale nit ñi ngir ñu mën a koor koor gu mën a gu jag loolu tamit incha allah dana ko fas yéene fésal bu baax a baax. incha allah maanaam organes yi nekk fii ak yi nekk ci bitim réew ñëpp ti mën koo jot. Ah, waaw ah, waaw bu dee wax ne dafa waxtaan yi di set h 30 sa sama laaj bu mu jóg yow ndax communication dafa bari lu kii. Mhm. gis nañ ne nit ñi. Mhm. jumaa ji xaw naa ne ci biir dëkk bi. Mhm. te it am nañu ku nekk ca boori Mbàkke. koo xamante ni bii bu fekkonte ni bi yàlla doon na benn écran nga ca angle booba. waxtaan yëpp ay jàll foofa. dana ko dimbali loolu surtout guddi. Mhm. ñu am ko lu mel ne angalu daara yi. Mhm. ndax yooyu sëñ jii leen koy bàyyi xel. teel cee wax commune bi ba mhm. place yu mel noonu ñu mën leen ko bàyyi ku man leen a jàppale ci écran yu toll noonu tam surtout magal Touba boo demee corniche su daara da ngay jekki jékki rek romb mu wóor na fi lii ca jumaa ja la boo jaaree corniche su Mbàkke nga xam ne lii jumaa ja la boo ko jaaree bu ndindi nga xam ne lii jumaa ja la côté boo fi jaar rek ndax loolu itam xarala yi maye na ko fi mu ne waaw xam nga xarala yi moom dana gën a yaatal jumaa xarala yi moom xam nga xerañteef yi dafa mel ne romb na sax loolu ngay wax mhm. waaye projet la boo xam ne mi ngi fi tege incha allah xam naa kilifa yi danañ ci gën a dox mhm. mu mu gën a mu gën a jëmm mhm. rawatina ci maire maire bi mu ngay wax bu ko defee euh, ginnaaw dëkk yu mag yëpp foo foo foo fi dem dañuy am ay écran yoo xam ne ci lañuy ñuy mhm. li ñuy jaay wala ci lañuy ñuy wa wane li nga xam ne moom lañ bëgg. Mhm. nit ñi nit ñi xam ko. bu bu màkk fi mu ne la àjj euh, ñoo ñoo lay ñoo ñoo lay ñoo lay ñoo lay gindi. Mhm. ci li nga war a def wala ñoo lay gindi ci yoon yi nga xam ne ci nga war a jaar. kon waxtaan yu toll nii rawatina euh, fataawaay yi. waaye rawatina duruus yi nga xam ne am njàng la moo xam ne ci biir koor gi lañ koy def waaye rawatina ci conférence yi nga xam ne dañuy dañuy tànn yoo xam ne wuute wuute la xewoon ci jamono wala jamono soxla ko ñu indi ko ci ci ci ci jumaa ngir waxtaane ko kon loolu ñëpp war nañ koo war nañ koo xam war nañ koo yëg war nañu war nañoo jàng war nañoo laaj ginnaaw ginnaaw am njàng kum laaj la ak ak waxtaan xam loolu te loolu mooy. mooy fi jàng ne <laughs> ñu war a laaj fi ne. waaw ñii di tontoo ko jàng. ñii ton ñi ñi ko ñi ñi ko war a dékku tamit ngir ngir diglu ko ngir jariñoo ko ñi ñoo ko war a kii. kon yooyu ngi jumtukaay yooyu ngay wax yëpp. Mhm. Euh, lu lu itteel la. waaye ay procès yoo xam ne kilifa yi xalaat nañ ko bu yàgg waaye nag dox dox gi mu am moo ci des. macha allah kon <laughs> ñu ngi ñu ngi ñu ngi mbooleem ñi nga xam ne tamit ñooy. ñooy jàpp ci liggéey bi rawatina ci rajo yi waaye rawatina tamit ci wàllu organes yi nga xam ne site yi ak yi ñu ngi leen sant bu baax ci itteewoo gi nga xam ne itteewoo nañ ko lii bàyyi ko fii donte sax mooy mooy mooy seen warteef waaye ñu ngi leen ci sant bu baax a baax euh, ñu gën ko tamit ñu gën ko bàyyi xel di ko gën a yaatal ndax amul amul amul luñ lu ñuy fesal wala lu ñu lu ñuy yaatal hmm. lu ëpp solo liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def fii lañ bokk ñëpp moom lañ bokk ñëpp ndax mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy seex ñëpp <laughs> jërëjëf euh, sëñ Jili Bousso nekk ci wàllu communication bi kon sëñ Maxtaar euh, kàddu gu mujj gi yow waaw maa ngi sant jotaay bu baax rek man xam lay lay rek hmm. mooy xam nga ci wàllu li ñuy consommé ci jumaa ji ay xeeti naan ma léegi ñi ñuy saytoo tamit ba ñu ko joxee nekk ñu set mm-hmm. an doo jël beneen beneen matuwaay mooy jéem xool mi yi ñuy consommé mm-hmm. yéen effet la def am ñoo xam ne nii bëgguñu lu weex mm-hmm. ñu jéem ba ñu bàyyi ko xel daal ba xam ne ku ñëw tamit soxla lu weex ak loolu weef yooyu bàyyi ko xel ndax wàll ci wàllu dëgg da ngaa war a bàyyi xel nit ñi naan ndax méngoo na ak seen li war a naan. seen sentiment ak li ngay doose nit ñu ko a doose ba mu tolloog li ministre wax. kazaare mm-hmm. tamit fa fa ay secouriste. Mm-hmm. gën am ci waaj ñu ko dooleel. Mm-hmm. ba ab cas bu amee ku daanu. loolu jël ci liggéey ba. wax daal bu ko taxawee. loolu ñu ngi koy bàyyi loo xel baax a baax mbooloo mi te ñoo ngi ñu ngi ciy jëm ci. comme dañuy formé nit ñi ci wàllu ket. di ko formé ci wàllu jikkoom ngir mën a nekk taxaw koo xam ne nii. bu aayee dana xam ne mu aay fu mu ko teg. Hmm. ak tuuti waaye di kaso yi farba ko ci. même koo liggéeyloo ba bu bu kuy li ñëw ak lu mën dem noo mën def dana man a jubbante ba ngeen fekk si sa bëgg-bëgg. daa am benn mag mu sa xorom mu mu sa wax benn jour ni ñu waxtaan hmm. man day maa gënoon na réeroo ak yéen. Hmm. waaye benn aj ma laa fi xëy ñëw si. fekk da ngeen di bare. ma ñëw dina xool. ngeen pare lal jumaa ji. parfum ko daal di génn ma doon leen xool ba midi ngeen ñëw hmm. ma gis ngeen taxaw ci boo si nag nii ak moo taxaw gi rek gee hmm. maa si tax maa si ñu gi hmm. ñu sàpp ba sàpp si jeex ba génn ñu ñëpp di la ci onaaj laa bàyyi xëccoo yéen allahu akbar mais ñu mën na fi ñëw ñëpp gi waaye jullee kon loolu tamit ñu ni formé noonu ba nit ñi xam ne loolu loolu loolu ngaa jox ki mu te ci laa ñëw loolu ma formé di ci wàllu sécurité ba xam ne ku gaañ tamit la ci njëkk nga mën koo def. danga ko yóbbu ci infirmier bi hmm. taxawaay yi hmm. mën a mat. Hmm. bu dee tamit ñi xam ne dañuy jiwaañ di di di laal poos. laal poos mooy dem ci denc jàmbur yi. waaw loolu loolu dañoo xam ne loolu jiwaañ moom ko bàyyi léegi ndax jumaa ji bis ñu wax ne foo taxaw jumaa ji ak balaa moo la tiim. hop benn nga ab gardien. mu sol tenue ba am neex ren danoo ren danoo préparé ñoo xam ne nii dañuy sañ sama jekk nit ki bii sàpp si waaye daal ñuy xool ñi lubal yu bokkut ak waaw yu bokkut kon kaas yi def ci yi def ci ci pocc ci siwo yeeg yëpp nañ ko moytandi ko yëpp nañ ko moytandi ko ah, am na kaas yu def ci siwo ndax loolu tamit day indi gàllankoor ndax bu ñu yàppee te na tekki yoon la kon loolu laa bëggoon a jeexal ci liggéey bi rek ñëpp mën cee bàyyi xel baax di sant bu baax nag wax yàlla ci commission exécutive comité bu ma damay naan euh, man su ma su suñ mën a réussir ñun suñu liggéey hmm. ñoom la te maa ngi seen siñ fàll tamit ñoom tamit man dañu toog m hmm. siñu laaj ñoom ñii duñ toog da toog ak ñoom wala jëw ñu ne am na ku ñëw day ñëw fekkoon ba loolu ku koy def nag te mënoon doxe meneen defu ko hmm. boo àndee liggéey tamit war nga ko jëjee xam ñoom du ay kilifa la waaye tamit waa Kébémer si bopp ngir ànd nit ñi ngir mën a. dëgg te loolu wax xanaa la kaay toog fii tamit dañuy ñëpp yam te doonte mën na noonu toog ci kanam waaye boo si kaay toog fii lay fekk si loolu tamit woyof xam ne tamit ku séq ak a sant leen taxawaay bi tamit ak seen jàmbaar tamit ak seen jàppoo ngir bëgg avancer liggéey bi tamit loolu tamit lu am solo ci liggéey bi kon ñu sant bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax nag mm-hmm. ndax chaque année dangay def acte yu am solo ci ci ci ci ci liggéey bi mm-hmm. am na benn mag mën naa naa ma yéen yow Sëñ Fall Gass moo waxoon ne ma Sëñ Fall suñu am am na ñaan koy ñaanaat ba léegi gisuma ko mm-hmm. naa ko woo yu mel noonu da ngay fàttali nit ñi mm-hmm. ni ni ñuy doxee ci liggéey bi te loolu lépp loolu neex doo ko def kon taxawaay nga taxaw ci daaj bi ñoo ngi sant baax dañ ci gërëm gis nañ ko xam na xam na tamit tax nga def mo suñu tamit la ko def yàlla na la fay yokk la may la kattan ngoo liggéey suñu tubaab asalaamaaleykum wa barakaatu maa ngi jéem waaleykum salaam wa rahmatulah xam naa sëñ da koy tëj waaye ba la koy tëj rek eh, ci diggante boobu sëñ Maxtaar ñu sant bu fàttali fàttaliwaat bokk yi ndax it nag eh, sëñ sëriñ Moustapha mu sëriñ mu daminta maa ngi ko ziar bu baax day wax ne eh, nit ki war naa xam gàcca laata muy am gàcca ndax nee na am gàcca te xamoo ko ci ngay dëkk boo xasee xam gàcca nag dangay moytu lu tax nga am gàcca mais eh, waxtu na ngay gis nit ku am gàcce te du xam ne am na gàcce ndax daa xamut gàcce kon gàcce da koy njëkk a xam ba tax li xam li tax a am gàcce nga di ko moytu ko ba doo am gàcce waaw yooyu eh, dama ciy bàyyi xel lu mel ne lii nga wax nii daayira bi daanaka boo xoolee ñu ko séq kenn ku ci nekk lu gàtt gàtt fanweeri nit topp na ci sa ginnaaw ak loo doon doon gone kon responsable nga wutu fi mag. bàyyi loolu lépp nag takk sag laxasaay ngir xam ne ki la boolee ak loolu moom ngay liggéeyal muy Sëñ Tuubaa nga wàcc sa bopp yow mi ñëw te xamoo ko moom mu lay mu lay lijjanti nga xam ne boo demoon ba këram moom dañ koy lijjanti lii nga lii mu lay defal denc na téeméer yu ko yoo xamante bu demoon këram ñooy def loola moom mu toog takk ak laxasaayam ngir Sëñ Tuubaa di la ko defal yow mi ñu koy defal war ngaa xam loolu bala ñu la koy yàgg ndax ah xamewuma ko noonu rek ciy mujj ak sëñ baal maax wala nga dajeeg moom di am kers koy nag ñuy jox cër kilifa yi ak luñ doon doon tout tànk seen kanam luñ wàcc wàcc seen mbubb luñ woyof woyof seen kanam nga xam ne am na cër bu yàlla def ci ñoom nag te sëñ Tuubaa moom lu ne la man ba mu des maye nangu waaw lu maye moom noppi na ci nee na moog lu lu mag mu xaaxtindi ko sànni ci àll ba la yemale ni noonu ngay xeex seexloo loolu ñu lay seexloo la may woon kon la may woon ca maam ji rek mooy wàcc ba ci sët bu mujj ba Euh, loolu ñu di ko bàyyi waale xel bu baax baax da ci am solo ci biir liggéey bi euh, kon sëñ Abdou Lahad fàttale it nag bokk yi nag lii ñu wax lépp xaalis koy def te bi dañ dañ ñu ko fee yaakaar naa de nii rek mastata jumaa ji moom ñoom am nañ fayda ju toll ne moom mastata ci la ñuy dund moom ndax ci la ci la ñu fekkoon sëñ waaye ñu fa bu ñu bàyyee xel ne sëñ bi ñetti dërëmam yooyu mu doon wër ànd ak maam ko ay at moo ñu may milliards yu bari yi léegi ku mel ne sëñ Ablaye Dia wax lépp liggéey bu dee fi mu fi def dafa xam ne li mu yor sëñ Tuubaa ko jox te saa yoo demee ba xam ne sëñ bee la jox li nga yor rek dootoo ñàkk loolu moom ndax sëñ bi nee na woon sëñ Isaa xam leen rek naar bee fi indi xorom kon ñi nga xam ne yor nañ lu toll noona it ñu xam ne jumaa ji tax ñu koy laaj Matar Kan defu ko ci poosam du sëñ laat bu sa Ceerno du sëñ Ablaat bu sa Maxtaar kenn ku ci nekk la ngay dunde yaa ngi koy dunde ba noppi di wut saw ñàq di ko defaat ci jumaa ji boole ko sa jëmmi bopp kon nag ñoom ñi yor xaalis nañ xam ne cinquante million yi wala soixante millions yi ñu bëgg def nit ñi ci dogale leen ko ci koor gi ñoom ñoo ko war a génne te am na ci ñoo xam ne sëñ Tuubaa jox na leen teraanga ju toll ne ñu mën a génneendoo benn yoon soixante millions ya te it nag ku ne nga mën a nax ba mu des sëñ bi soo mënee soixante millions génne vingt mille francs sëñ bi xam na ne denc nga lu ëpp loola waaw mënoo bokk ak tuyaaba ka nga xam ne amut ñaar téeméer ba noppi joxe dem joxe juróom-benn fukk moo lay ëpp tuyaaba fu téeméeri junni yoon mm-hmm. yow mi denc lu bal noonu kon nag liñ am sëñ Tuubaa ñu ko jox te yow miñ koy laaj di la ko defloo ci jumaa ji na nga xam ne bu yàllay fay du ma ko du ko jaarale ci man yow la koy fay directement tuyaaba ji yaa koy moomaat kon nag liggéeyal yàllaa ngi nii boo xam ne occasion la ñu ko sëñ boo xam ne weeru promotion la boo xam ne nit ki mën na cee dajale lu baree bari mën na cee farit li wees woon lépp te ay ñaawteef yàlla ñu ko ci yàlla defal kon sëñ Bayraat waa kay jërëjëf sëñ Fallou xam naa fi may tëjee dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo doon jàmbaar lool ci liggéey bi te bi may tudd ñi taxawee taxawaay yu am solo euh, li ñuy wax rek ku lim doomatal donte ñu bari la waaye danaa ci génne ñaar muy alxaaji Abdoulaye Jàmm mu ñu wax léegi di ci taxaw taxawaay yu am solo ak euh, rak euh, magam soxna maam Anta ja mi nga xam ne ci liggéey bi ci loxoom lay jaar ak suneen mun suñ meneen mbokk di Serigne Souleymane jaañ moom itam am ci taxawaay boo am solo ci liggéey bi ci waxtu wu nekk ñooñu xëy na jege guñ jege ak fës guñu fës ci biir liggéey bi moo tax bi ñuy bi may tudd sama xel jël leen euh, li ci des rek nag nag dama koy wax ci waxuma ko tey ci qualité ku fi teewal commission sociale président commission sociale waaye dama koy wax ci qualité euh, secrétaire général Muxaddamatul Xidma Sëriñ Fall dafa wax ci biir waxtaan wi muy euh, lu am solo muy ab émetteur ak fréquence boo xam ne day man di dañ ciy man di diffuser wax ji ci wàllu son ak ci wàllu télévision foofu nag may ñaan ñi nga xam ne ñoo amee liggéey boobu ñu jàppale lañu ci bu baax a baax a baax a baax ndax ay at ngi nii ñu di ko dox toog nañ ci ak njiitul réew mi di président Macky Sall mu déggoon li koy wax lool nag leeral ñu sax ba leeral ci luñ ñu ci xamutoon wax ñu ne lu jaadu la lu jekk la lu rafet la ndax ñi ko soxla ittewoo ko yaatu na ci àdduna si te masjidul xaraam ak masjidul nabi sarif sax lool dafa am kon jekk na te jaadu mu am ci jumaay Tuubaa ji waxoon ne gàllankoor yi nga xam ne moo ci amoon wax ni su loola teggi ko incha allahu li muy yi njëkk a joxe ci lay bokk kon président ñu ngi lay fàttali kàddu yooyu nga xam ne yaa ñu ca waxoon wax yu rafet yooyu ñu di ko nee na ñu ngi koy bàyyi xel ba léegi fréquence bi itam ci wàllu rajo soxla nañ ko lool ngir mbokki taalibe yi ñu ngi fone ci biir réew mi ak ci bitim réew di soxla lii te ñu ci ëpp amuñu connexion kon jaadu na ñu mën koo am ci fréquence fu rajo waaye jaadu na it ñu am fréquence télévision boo xam ne réew mi fu nekk waaye da ko fa mën a seetaane ñu ngi ko ci soññ bu baax di soññ itam soxnaam soxna Mareem ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne dana koy def ci jëf yu baax yu mel nii mu taxaw ko ci waaye nag noonu yemulewuñ ko ci ñooñu rek. Mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi tey yëngu di moo xam nga soxla réew mi moo xam réew mi nekkoon ci loxo ba génn ci moo xam nga nekk ci ñi nga xam ne ay doxal réew mi dañoo xam ne ñun ñëpp lu jiitu ñuy wutum réew wala ñu jiitu ñuy nekk njiit ci réew mi wala lu jiitu ñu nekk ku yoroonum réew ba ñàkk a yoretim réew ay jullit lañu ay taalibe lañu suñu pas-pas ak suñu man-man diine daf ko war a xam sunu taalibe daf koo war a xam sunu pas-pas itam euh, daf dafa war di feeñ ci lépp lu ñu yor lu mu mën a doon di ci fàttaliku ne kenn ku nekk ca nga yor mu nekk ci sa loxo ca nga mën a liggéeyal yàlla. te di àdduna lu nekk ab tolluwaay la te tolluwaay boobu day gaar bu ëllëgee day romb Cheikh Mouhamadul Fadil sa turandoo nag waxoon na ne àdduna tey rek la àdduna jëpp tey rek la démb weesu na loo ci defutoon ñàkk nga ko ëllëg ñëwagul xamoo dana la fekk wala du la fekk kon lépp tey la ñu di ko tënk ci wax ju gàtt mooy démb tegatu la ko ëllëg tegagu la ko kon lépp tey la kon nag ñi ngi soññi yemalewuñ ci waxuñu ku nekk ci pouvoir rek waaye ku nekkoon ci pouvoir te nekkatoo ci ñi ngi lay tàllal loxo ki nekkagul ci pouvoir te di ko wut ñi ngi lay tàllal loxo ki ne yàlla teg pouvoir ci loxoom ci jamono yii itam ak ñi walla ñi yàlla teg puwaar ci loxo seen seen loxo jamono yi ñu ngi leen tàllal loxo ndax lu jiitu loolu ak lu mujj loolu lépp ay jullit lañu ay bi lañu te fu ñuy wutee lu baax kenn waru leen faa jiitu kon dal sëriñ Fallou yitte yitte lool ci barab bi muy fréquence yooyu fréquence yooyu bu télévision bi ak bu rajo bi ah, sëriñ Babacar Diagne mi nga xam ne nag moo jiite wàllu googu toog nañ ci ak moom wax naan waxtaan nañ ci ak moom jàpp nañ ne itam lañ koo xam mu ngi koy bàyyi xel mi ngi ciy dox ay jéego itam wane na itam itteel gum ko itteel ak mbirum Sëñ Tuubaa jëm kanam ñor gum ko ñore kon ba léegi itam ñu ngi koy bàyyi xel ci liggéey bi te di ko xam ne nag taalibe yëpp foofu taalibe nekk ci àdduna bi soxloon na ko ittewoo na ko te mi ngi koy bàyyi xel ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu fàttaliku ci sëriñ Seexuna Jatara jiite woon euh, commission culturelle bi di ñaan sun boroom Eh, gàttandoo ko ci